jërë ngeen jëf ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo ITFA rajo ITFA ànd ak yéen ci programme yees yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo ITFA ànd ak yéen lépp luy askanu Gambia wala mu soxal askanu Sénégal te nekk ci biir Amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo ITFA ci programme yu am solo rajo ITFA di rajo askan wi leeram ya jollina foo xool foofa baawaan rajo Itfa daal dama ni jàppal ma bii rajo bul ko bàyyiti ba mukk rajo Itfa rajo askan wi رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب والقلب صلي على محمد morning.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 والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صاحب الخطم المحمدي رباني تاج العارفين وإمام المقربين مولانا أبي العباس أحمد التجاري بن الشريف رضي الله تعالى عنه ورجى الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا ووالدنا الهاج مالسي بن عثمان رضي الله تعالى عنه بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجي اما نجي ñu يلا بباخ yàlla bu baax ba mu ñu دي ñu fekk فاونديشن programme امريكا nga xam ni di programme yoo xam ne ñu ngi koy amal saa su ne ci ndigal ak leadership suñu sëriñ di suñu wasila di suñu wéeruwaay di suñu bunt ci kër Seydi Hajj Malik ak Cheikh Ahmed Sy bu suñu maam Habib bu suñu maam Seydi Hajj Malik ñu ngi koy ziar si fu ñu tollu di ko ñaanal ci suñu curu njaboot gi yëpp di sàkku ci moom ñaan di ñaan yàlla yàlla dëgëral ko bàyyi suñu kanam ba ci kanam a kanam ci dar yonent bi sallallahu alayhi di noonu la ñuy gërëma tam suñu ay daara soxna ma jigéen sekk si moom it di rafetloo xawaay bu baax ci xadara bi di ka ñaanal moom it yàlla defal ko sutura yàlla bàyyi ci kanamu njaboot gi allahumma amin ay ati at ba mu ba ko xanaa bon ñu am tey mbégte bu baax hmm. euh, di dalal euh, ànd ak tey ci programme yi suñu suñu mbokk al oustaz Abdou Aziz Fall euh, wax dëgg yàlla moom léegi moom miin nañ ko ci ëtt bi léegi tabarakallah ñëwoon na fi waaye bon léegi doot ñu ko présenté mbooloo mi dañ ko naan rek oustaz yaa oustaz ëtt bi mi ngi noonu sa ëtt wallahi wallahi waye bala ñuy egg xuus ci programme dañu bëggoon dalal suñu benn mbokk momit ci hadara bi Haj Pap Kebe bala ñuy jall suñu mbokk Haj Pap Diagne Haj Pap yaa ngi ndegam yaa ngi ñu ngi lay dalal bu baax. Haj Umar. bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ngi leen ni nuyu di leen ziar di len balu ak ah, te di len ko bal nah, di jiital si niyo bi suñu sëriñ suñu kilif sëñu Ahmed si bu suñu mam Habib si bu suñu mam haj Malik si Malik buñ ko nuyoo rek nuyu nañu ñëpp naka nonu ñi ngi ñuy nuyu suñu yaay soxna ma jigen si mu nuyul ñu soxna yëpp euh, haj Umar jërëjëf comme ni nga ko waxee euh, ñi ngi bëgg jall ci nga xamne moy programme bi bala ñuy jall ci abdul Aziz Fall Mm-hmm. Euh, moo ñu waxtaan bu am solo waaye balaa boobu rek euh, ñu jàllale programme bi nga xam ne ITFA mu ngi koy amal ITFA di Islamic Tijaniya Foundation bu Nord America mu ngi amal programme euh, every week li jiitu nag ci programme bi xaay sumar mooy njàngale alxuraan bi nga xam ne suñu sëriñ ci boppam moo koy def mi ngi koy defee fii ni ñu toog nii ci Zoom bi di ko amal ñetti yoon ci semaine bi incha allah bu njëkk bi muy euh, Tuesday di mardi ci guddi mi ngi jàngale diggante huit ci guddi ba dix eight ba ten pm ci lay jàngale mi ngi jàngale ci wolof classe boobu nag wax dëgg yàlla ni ci nekk sori nañu lool macha allah ndax door na ko balaa zoom balaa covid bi doon ñëw donc mi ci zoom bi lu yàgg ci jàngale ñu ñëwaat mu dolliwaat yeneen ñaari fan euh, lu mel ni samedi weekend samedi ak dimanche xam nga nu mu jafee mu jël ñaari fan yu ne jël samedi bi di jàngale diggante une heure ba deux heures et demie muy ba two thirty piem ci saturday bi muy jàngale euh, ci anglais la ko def pour mu gën a yomb ci xale yi waaye mag ñi tamit xaj nañ ci ñu ñëwaat encore mu jëlaat dimanche bi di jàngale ci li tollu one ba three pm maanaam une heure ba trois heures mu def ko ci wolof pour ñi nga xam ne ñi ngi doorte sorewuñu waaye defe na ne ku ci bëgg a bokk nga gaaw parce que ñi door nañ ko ñi ngi bëgg a sori waaye ku ne rek boo ci bëggee bokk rek di nga ci mën a xaj incha allah ñetti fan yooyu lay jàngale su bëggee mbokk ci jàng mi foog nga seet soxna Ami Sarr moom mi ngi ci 401 261 2701 wala nga seet soxna Adama Gueye moom mi ngi ci 401 688 5617 wala soxna Ndorin soxna Jeewo euh, Pam Ndiaye Gueye Cheikh Diall ko ci jot rek bokk ci ITFA dina la mën a dimbali ba nga fexe nooy bokkee ci njàng bi ah, ñu ñëwati encore ñu am beneen fan nekk démb muy euh, Thursday di jeudi ci guddi comme ni huit heures neuf heures ba onze heures ñuy indi experts yi nga xam ne ñu ngi nekk ci dëkk bi wala ku ñu mën a nekk ci àdduna boo xam ne dinañ ci mën a dimbali ba suñu nekkin fii ci Amérique yomb moo xam docteur nga moo xam ci éducation bi ngay yëngu Euh, lu waay mën ci def rek moo xam looya nga loo ci mën rek euh, ñu indi la fii nga waxtaanal ñu ñu laaj ay question nga tontu ko bu defee nekkin bi gën a yomb dana euh, te loolu tamit ku ne ajjuma muy tey ni xadaratul juma mooy li ñuy def nii ci la ñuy toog waxtaan indi boroom xam-xam yi fu ñu mën a nekk ci àdduna comme niñ ko defee nii indi Abdul Aziz waxtaanal ñu suñu diine ñu mën a yesal ñu laaj ko ñu mën tontu Euh, loolu mooy euh, juróomi fan yi nga xam ne ñu ko seex waaye comme fondation bi ni muy doxee il faut que nit ñi mën ci xaj il faut que nit ñi mu dugal ci seen xalaat loolu nag soo ko gisee ñu ngi daje Wednesday muy mercredi ci diggante huit heures et demie ba neuf heures et waxtaan booloo xalaat bi pour mën a jëmale it fa kanam loolu mi ngi am every Wednesday muy mercredi ajumar loolu mooy euh, programme bi nga xam ne it fa mi ngi koy doxal semaine bi ñetti juróom-ñaari fan la seven days waaye juróom-benni fan yëpp macha allah ñu ngi ci yëngatu pour jëmale fondation bi kanam loolu mooy programme bi ñu ngi dalal sa gan gi Abdoul Aziz Fall bu émission bi jeexee dinañ xam ndax dinañ ko bàyyeeg sant bi. <laughs> jërëjëf jërëjëf Haj Pape jërëjëf Haj Pape leeral na matane la. ñu ngi lay sant bu baax ko mooy suñu mbokk Haïs Pape Diagne bi ci studio Dalu Habibi ca Washington Tivaouane Washington waaye bala ñuy jàll tey dama bëggoon eh, ci eh, ci eh, oustaz Abdou Aziz ñu bëgg dalal suñu benn mbokk itam mi ngi mi ngi mi ngi joindre ba ci Dalu Habibi ba ca ba ca Boston Haïs Pape Cheikh Haïs Pape ñu ngi lay dalal bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu Haïs Omar ñu ngi lay ñu ngi lay programme bi. ñu li ñu mën a wax auzu billahi mina shaytani rajim allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi ñu ngi nuyu suñu sëriñ suñu wasila sëñ Sidi Ahmed si di ko ñaanal yàlla mala ko wér ak wér le di ko ñaanal li mu yennu yàlla oyofal ko ko ci dara de Seydina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waaw ah, ci nuyu bi nag duñu duñu ci fàtte suñu yaay ah, soxna ma jigéen sekk si di ko ñaanal moom it moo ak njaboot gi ak mboolam ITFA ak mboolam ñi teew fi lay ñaan yàlla may la ñu fekkee ko ay déwén yu bëree bare bare bare jaay nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam waaw wax nag xanaa euh, Hadj Omar di dellu di nuyu sëñ yow mi Fall di ko nuyu di ko ziar xanaa ñu joxaat la kàddu bi rek nga bàyyi ko xëy na moom moom na mën a développé bu baax xool ba xam euh, la ci biir. jërëjëf jërëjëf Hadj Pape jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, bul sore parce que tey ñooy saq waxtaan bi man ak yow ak Oustaz Pape Diagne incha allahu xanaa ñu ñu au passage ñu ñu ñu bëgg a ndokkeel suñu mbokk boobu ca ca New York moom it Hadj Fally Ndiaye wax dëgg yàlla moom i may taawam tey ca ca dëkk ba ñu koy ñaanal ñun ñëpp ci turu xadara ci xadara bi yëpp yàlla barkeel say boobu yàlla na leen yàlla def ay magi islam yàlla na ci yàlla def ay islam tamit ci dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bon nag sans plus tarder xanaa ñu jàll suñu jàll suñu mbokk alhaj ya oustaz sëñ Abdou Aziz ñu ngi lay dalal baax dalalati sax laay wax ci ci ci sa ëtt tafadala mashkuran salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نسيج وحده وآله وصحبه والذين جاهدوا lillahi fillahi min baadi yéen bokki waa ITFA góor ak jigéen mag ak ndaw fu ci waay mën a nekk ci àddina bi rawatina ak nag ci États-Unis d'Amérique assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum assalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi jiital nuyoo ak ziyaara jëme ko ci sunu kilifa di sunu sëriñ di tabarakallahu ko xam ni moo nekkal alxadratul malikiya foofale te mat ko sëkk tabarakallahu muy sidi ahmed si gu sunu maam Mawlana Sayyid Cheikh Mouhamadul Habib si radiyallahu anhu di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal fanam te yal na yàlla mottili mission ci lu kawe njortam ak yéeneem ci barke yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko nuyoo nuyu nañu mbooloo mi yépp waaye xanaa ñu dolli nuyu tabarakallahu Seydou Omar Diop nga xam ni moo ubbi jataay bi teg ci itam tabarakallahu Seydi Pape Diagne moom xam naa ni bu waxtaan bi jeexee danañu lijjanti mbiram incha allahu taala ke ca des mooy Papa kebe ñu nuyu leen yéen ñëpp ngeen yóbbaale mbooloo mi nag Eh, tabarakallahu nuyu soxna ma jigéen sek si mu yóbbaale jigéen yépp taxawaayam tabarakallahu umpul kenn dañu wax nag ni góor mënul tànk amul jigéen ju nekk ca wetam di ko mottali wa tabarakallahu kon nag moom mi ngi taxaw taxawaayu yaay ya taxawaayu maam yi yal na yàlla sunu borom dolli ko kàttanal yàlla barkeel njaboot gi mu mel ni nag euh, Seydou Omar euh, dañu tànnoon tey benn mawdu mm-hmm. te moo di awraaduna shifaun lima fi sudur wirdi yi nga xam ni ñun ñi yàlla ñu bokk ci tariqa maulana qutbul arifin cheikhuna tijani sharif radiallahu anhu wirdi yooyu li ko tax a jóg mooy jàngoro yi nga xam ni mooy jàpp xol ba yàlla gedd xol ba gedd xol ba bu ca wàccati Serigne Cheikh day wax ni fi yàlla wara a tëdd ci xolu jaam bu jaam bi sàgganee ba génnee fa yàlla ndax jukko yu matadi nee na yàlla dina dem waaye dina fa bàyyi kàmb goo xam ni bu bidd nee na lu nekk jaam bi dana ko wutaat pour remplacer yàlla mu tëkko ndax yàlla ci xol dara mënu ko remplacer kon jikko yooyu nga xam ni xol mooy base bi te su génnul ci xol yàlla dafay gedd borom xol ba te ku yàlla bàyyeeg sa bopp seytaane yilif la te seytaane ku mu yilif wal iyaadu billah perte nga àddina ak alaxira awraadu tariqa bi nag ñu nekk ay médicament yoo xam ni dañuy saafara jàngoro yooyu pour xol bi mën a laab sel jukko yi rafet yàlla sunu borom ñëw dëkk ci xolu boroom yàlla nag nee na laa yasaw ni samaai wala ardi walakin yasaw ni qalbu abdil mumin dañu ko wax moom yàlla foo dëkk mu ni xajuma ci suuf ak li mu waaye nag xoolu jaam bu sell ma ñëw dëkk fa man yàlla kon dinay baax lool léeg-léeg ñu dellu siwaat fàttaliwaat nit ñi li nga xam ni mooy source bi pour wane ni tariqa du xumbu xumbu tariqa du xëccoo taalibe dajale mbooloo tariqa du dajale ay hadiya tariqa nekkul tàllal ñaan ak barkeelu waaye ab tariqatu imaanun wa amal tariqa da ngay gëm yàlla sa boroom nangu garanti yi nga xam ne yàlla def na ko ci tariqa bi ndax loo gëmul woolu ko du la jariñ kon boo ci wóoloo yàlla ca tariqa ba ba noppi wane ni yàlla ko garanti nga bañ tëdd di nelaw waaye nga laxas kaala ci sa ndigg fas yéene jëfe li la tariqa ba sant loolu moo lay jox meññantum xaqiqa bi taxoon mag ñi sos tariqa dafa woykatu arab bu bu bu bari xam-xam bu tënk li tariqa di doxal ci ñetti ñetti ñetti bayt dafa xool mutasawwifuuna yi nu jamono yi gën a demee mu jug jamono sell te di gën a manqué nit ñi di gën a glissé jëm ci folklore te nag mu xam ni loolu taxul woon mag ñi sos tariqa mu waxal mag ñëpp ci làmmiñam ni leen laysa tasawufu lub suufi turaq la bukaauka in ganna al mugannuna wala raqsun wala tarabun wala an بل التصور ان تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقران وطريقه نيك يري خيبو دي وناني داغا راغال يالا راغال يالا سي خول لاي واي دو نيك يري ku آه، ya يالا ragal yalla wolu yalla sel da nga rafetal sa ciolin ndax ci sant yàlla la bokk mu ni kon ki jàpp ni tariqa sol yëre yu xotteeku yëre yu ràpp mooy wane ni danga ragal yàlla yëre yoo xam ni bu xotteekoo dowut bu bees sante ko yàlla waaye danga koy ñaw topp ko di ko ñaw rek di daax di daaxaat rek nee na itam nekkul ci nena na di jooy guddeeg bëccëg bu nuy tuddu yàlla a ñu koy bàkk ci ay way ngay jooy di wane ni danga ragal sa borom neena na it la wut nekkul ci di fecc waaw bég ñu tudd sa sëriñ mbaa yàlla mbaa yonent bi nga bég ba tëb di fecc nee na itam nekkul ci ngay tëb di daanu di mbëkke nee na ka an xat serta majnuuna nee na loolu day jëfi dof la xelam manqué mu ni waaye tasawuf an tasfu bila kadarin mooy ngay noddanti say jukko di selal sa bopp ba xëy toxu ci tilim jëm ci set toxu ci sell di jëm ci sell ba set wecc nee na ba nga xam ni tey bu doon ndox la bu ñu ko taajee ku ñëw mën na ko naan ndax amul nëx amul lu ca nëx ndox moo xam ni tey dafa sell set ba soo koy naan du du jar nga di ko teg pour la ca nëx dem ca suuf nga naan ko nee na jullit bu ne li la sant mooy nga sell ba mel noonu nee na nag nga topp yàlla sa borom nee na itam nag nga jëfe alquranul karim mu nekk sa dustuur nee na itam nag nga jël diiney lislaam nga bañ ko waxe waaye nga jëfe ko kon waykat boobu daf nuy yóbbu ci li nga xam ni moom la ñu bëgg waxtaane te moo di nekk nga xam ni awraadu tariqa bi nekk na ko ay médicament pour saafara jàngoroy xol yi nga xam ni bu wérul ci xol boroom yàlla da koy gedd mu mel ni nag ci xadis yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa melal jëmm doomu aadama ay cër yu bare composé ko waaye mu wane ni jëmm ja la muy rëy rëy rëy defaruk nit ki mi ngi aju ci benn suux te moo di xol bi bu xol bi defaroo nit ki defaru waaye su xol bi yàqoo nit ki yàqu kon alquran dafa jox xol benn wàccuwaay boo xam ne joxu ko benn cër lu tax mooy élément bi nga xam ni ci baaxam ci la lépp di baaxee waaye tam ci yàqoom ci la yépp di yàqoom ñu mëna wax ni buñu ñu cër yi ci doomu aadama yépp cër bu ci ne loo am am valeur ñu jël xolu doomu aadama ñu wàcc jox ko wàcc wàccuwaayu jama bi moo ci ëpp valeur mu nekk jawhar mu jarrat jama boo xam ni raxul dara lu set la lu sell la lu tax parce que insaniyatul insaan nit ku ne lay tax nga nite ci kàddu ci xalaat ci jëf comportement bu mu mën doon lay tax loola ca xol ba lay génn ko dee jéem a wane sax da ngay tricher moo tax li waykat ba waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko am na ñoo xam ne bu ñuy bu ñuy def lu baax dañuy tricher dañuy baax baaxlu ndax nekkul lu naturel ci ñoom mu ne ko yow nag mbaax moo nekk loo xam ni tabii la ci yow mënuloo def lu dul lu baax kon nite ak nit nit niteem la koy suuxat ci xol lay nekk am na sax ñuy dem bay wax xol di ko tudde nafsu muy bakkan lu tax ñu ni ndax moom mooy baasu jëf yépp jëf bu doomu aadama jëf rek yéeneeg jëf ba moo jiitu te ci xol lay gongi ko moo tax ñu ni kon xol mooy suuxat xel xol mooy base bi nga xam ni ci la ngëm di tabbi waaye tam bu ngëm dàqoo ci la kufru di ñëw te moo di weddi yàlla bu ñu ko dimbaliwul tamit li ñuy wax ak nifaaq muy naafeq ci lay installé xolitam xol muy njub fa lay basé muy yërmande fa lay basé wu waaye itam alxafla muy càggante fa lay basé kon moom gis nga dafa mel ni dafa am lu koy awante moom xol yàlla daf ko soxla seytaane soxla ko moo tax mag ñi wax ni nit su ganee àdduna ñetti yoon la yàlla amal rendez ak xolam bis bi nga xamee ni mooy septième jour bi ci ñi koy tudd ni yàlla dana déy xol bi ni ko néeg bi dama ko soxla pour nga dencal mako lu mu yag yag nak dina la fay muni waye bu yàlla deddo shaytan ñëw taxaw niko man dama soxla néeg bi waye damay joxe legi avance lo ma laaj ma jox la te bu weer ma fay la ci waxin كون يالا سخلانا خلبي ومونيك دك وايم تنيتكي واي شيطان يالا تخلم موم شيطان مونيو اسر ام رانديفو بي فوف صح ما امتي بن صحابي يوني خنا امي دوم الخميس الاربع بي نيوات لاي كاي تودو دوي خار با الخميس داني واخني جيروم نياري فان لاني واخ تا خاري با الخميس مو نيك nga jàng téere yëpp ak dégg li yàlla wax bokkul bu gisee mag ñi raw fi mooy danoo dégg xam-xam gis nga jigéen su borom këram faatoo tey fu ñu ko bette ni ko sa borom kër génn na àdduna fi saasi lay muuru mais bés boobale mu tàmbale muuru suñuy konte ñaata weer lay muuru duñ ci boole boobu jour lu tax ndax yow mu la boo xam ni manqué na ay saat ay heure moo tax doo compter waale bés bi niki noonu si nit ki ganee àdduna ñu xool heure ba mu ganee àdduna ci alxamis ñu ni kat manqué na ay waxtu pour mu mat vingt quatre heures loola waral ñuy xaar ba alxamis dellu siwaat ñu tudd ko mu ëpp ay waxtu moo gën mu yées manqué ay waxtu loolu mooy tabarakallahu tegtalu mag ñi kon premier rendez bi jour bi mu ganee àdduna ba dellu siwaat muy septième jour bi buñ koy tudd deuxième rendez bi su demee ba majeur ba su defee tuyaaba ñu bindal ko su defee bàkkaar ñu bindal ko yàlla dina ñëwaat déy xol bi ko la ma la waxoon ba tey moom laa lay waxaat mooy fexeel ba néeg bi bu ci kenn dëkk bàyyi ko pour man yàlla pare na ci su nga ñaari rendez-vous yooyu ba ka ñetteel nag mooy bis bi nit ki génnee àdduna ba ñu sangu ko sangu ko tëral ko di ko jullee ah yowma laa yanfau maalun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim keroog nag la yàlla di xool xol bi xam ndax mucc na ci seytaane wala muccul ci seytaane kon mag ni xam nañu bu baax jàngoro yi nga xam ni moom la xol di am ak étape yi nga xam ni itam fa lañu koy mën a jaarale pour mën ko saafara balaa muy indi nit ki gàllankoor su ko defee wir gi xol bi di wér ci mboolem jukko yi nga xam ni dafa xeer bu jukko yi mooy lan moo di al kufru weddi dëgg an nifaaq muy koo xam ni ki weexuloo ñuululoo na feq nga ak takabur rëy te yàlla dafa wax ni al kibriya urida yi fa man naadaanihi alqaytuhu fi naar wala ubali yàlla nee na manto rëy sama manto man yàlla fa ma ko wékk ku ma gis nga dox jëm fa ma écrasé la et eh, sama yoon nekku ci ndax yaa jëm ci loo moomut yonent bi wax ni ku dee lu tol ni peppu atom ci rëy nekk ci sa xol doo dugg àjjana ak moom muy muy mbagnel kañaan kañaan gu deggu al ghadab merta yalla taxul merta bakkan rek tax ah, nit sëriñ cheikh nee li fek so waré mer mer ñoraguloo mais nee so ñoré deug da ngay dem ba war mer poñe sa bakkan ba do mer ah, budul yalla taxna rek do mer ah, wa idha ghadibta fa innama hiya ghadbatun fil lxaqi laa bornun wala baxdaa u sawki moo ko wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow boo meree ñu xam ne yàlla mer ndax amuloo sa merum bopp nee na ameloo kenn en ameloo kenn rancune dencaloo kenn xarma yàlla su yàlla bégee nga bég su yàlla meree nga mer kon mën nañu natt yàlla ci yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alxiyaana jukko yu wor waaw ah. ñëpp wóolu la nga wor alo ujbu mu yéem sa bopp yéem si loo def nga yéem ko al xawfu mooy li ñuy wax ragal bokkul ak ragal yàlla ay xawfu mooy nit ku wóolu wóolu yàlla ba lu ba yëngu nga fëx wóolu woo yàlla ci sa bopp wóolu woo ko ci sa njaboot wóolu woo ko ci dara fasoo yéene bàyyee yàlla dara foo toll yaa ngi tëf tëfi di lox ndax ragal ndax ñàkk wóolu yàlla ah suu zan ñaaw njort alquran ŋàññi ko ndax soo ñaawee njort ci nit ki rek daal di koy jugé te nag wóorul yàlla ni la moytul ah, wax ju ñaaw yëpp seen base xol la waaw ah, tuumaal nit ay gor yu set wecc alghibatu sa lammiñ ñeme jëw azulmu alal jay la wala pouvoir wala xam-xam wala lu mën a doon ba tax nga di ko jëfe ci tooñ ay gor alkazib ñeme wax lu dul dëgg hubbul jaah bëgg daraja sa maam Mansour yenn yàlla yokk leeram nee woon na suñ ma nee diw ko bëgg daraja la dootuma ko miimal dara ndax daraja dana yóbbu nit ci lu ne mu di ko jëfe kon yooyu yëpp a riya njistal mooy loo def rek bëgg nit ñi teg ci seen bët wax ko alxasaawatu xol bu wow ba dootoo am yërmande yàlla dafa wax ni wa amma alladina fi qulubihim maradun fa zaadahum maradan wala boog zaadathum rijsan ila rijsihim ca taw ba yi nga xam ni seen xol dafa feebar jàngoro yi daf ca installé a nee neena mbugalu ñaari yoon la am ñaari mbugal la ñuy am mooy mbugalu àdduna mooy seen xol du féex ba mukk yenent bi neena na alxasuudu laa yasuudu am ku ma ko firiloo mu ni muy firi ma ne ko man de ni ma ko dégge mooy nit ku añaan yàlla suñu boroom defal sëriñ Omar Diop tawfiq nga añaane ko ko luy tax doo liggéey luy tax nga doon sang mooy dangay jonkonu sëriñ Omar di xaar mu torox di ko jonkonu di xaar mu torox di ko di xar mu torox ay bés ay weer ay at ba faf dootal dem liggéeyi lu la teddal alxasuudu laa yasuudu ku añaan du doon sang lu tax du tala dem liggéey lu koy def sang waaye day jonkonu jaamu yàlla di xaar seen teraanga dañ ba mu reetaan leen ko waaw Sëriñ Cheikh nag nee na fii ngay gis ku jonkon di xaar nit ku torox ba faf moom mu torox ba tottooral ca barab ba mu joggandi xaar mu ni itam moom sëriñ Cheikh ku yónni yàlla ci say noon di nga ko yàkkamti ndax yàlla nekk fi pour rayal kenn ay noonam donc gis nga feebar bi nekk ci yaram ak feebar bi nekk ci xol bokkuñu feebaru yaram da lay indil gàllankooru àddina mais feebaru xol nag da lay indil gàllankooru àddina ak àllaaxira kon ci tënk nan nag nan awraadu tariqa bi nekke shifa lima fi sudur nan la nekke ay comprimé yoo xam ni jàngoro yii ma lim ak yeneen yi des du bare te benn baaxu ci te benn bu ci nekk ci xol yàlla gedd boroom nan la awraad yooyu nekke ay saafara pour faj yooyu jàngoro subhanallah yàlla mi tudd ci alquran xuutul qulub yi nga xam ni su ko nit di def dafay suuxat xolam da koy dundal da koy naatal day koy tax mu gën a mu gën a mu gën a attaché wu ci yàlla ak yi nga xam ni su ko nit dee def xelam dafay dal tranquille dafay dafay am benn benn conscience bu bu bu dal su ko nit ki dee def ruuxam dafay firi ndax wóor na que ni kii deful lu ko yàlla di jëppee waaye limu def yëpp yàlla gërëm na ko yooyu nga xam ni nag mooy dundal xol ko naatal di ko suuxat mooy dalal xel ala bi zikrillah tatma'innul qulub nga xam ni mooy dalal xelu nit ki mooy dalal xolam bu koy féexal mooy dundal sa ruux mooy tax nga am benn dal bu baatin nag dalu biir boo xam ni ah ku ku ku bokkul ak yow du xam du xam la muy saf nan la awraad yi di defe loolu ci nit xam nga wa man lam yaj'al illahu lahu nuuran fama lahu min nuur yàlla nee na leer maa koy séddale ku ma ci joxul doo am loo niite te ku amul loo niite danga nga fakkastalu tax nitu yàlla yi bu ñu lay firil allahu nuuru samawati wal ard mathalu nuurihi ka mishkaat fiha misbaax ila axiri l ayati yow mi arab jàngal da nga naan allahu yàlla nuuru samawati wal ardi mooy leeru asamaan ak suuf demee ci tabarakallahu yi nga xam ni moom la sayduna cheikh jommale nitu yàlla yi du fa firi loolu moom la mu fay firi moo di allah tur wi muy alif ak ñaari laam ak haa boobu muy allah yàlla ëpp na ëpp na di leeral asamaan ak suuf jëmmam ja ëpp na loolu fa subhanallah waye turam yi nak man na leral asaman ak suuf ak lu ñom ñoom moo tax moom mag ñi ko degge ci tariqa bi allah turwi al alif ak ñaari lam yi ak bi dana dégager ci leer ci leer lo xamni man na leral asaman ak suuf waa lu mën a leeral asamaan suuf yàlla di ko cax di ci joxe misaal waaye nag misaal mi du ñëpp koy dégg li mën a leeral asamaanak suuf bu tàbbee ci xolu jàmm gëm yàlla saf ci làmmiñam jaxasoog deretam ak sidditam war naa mën a leeral xolam ba yàlla ñëw dëkk ci xol moo tax mu la koy misaal rek ci ki jël lamp def ci pétrole def ci mèche jël verre wërale ko ko ba nga xam ne su ngelaw uppee du fay nena na ba tooy na ci pétrole bi verre ba ma ngay sàmm ba ngelaw du fay takk takk bi nga xosoti teg ci mu takk leeral fa nga nekk yépp ni ki noonu boo jàppee ci tur wi di ko zikkar dina leeral sa xol di fa jële tilim tilim yi benn par benn di fa jële jàngoro yi nga xam ne mooy gàllankoor jullit benn par benn di ko dégagé moy dañ di jeex di jeex waaye nag da ngay am fula bu tol ni danga nga sàmm sa jëf yu baax yooyu ngay jëf aar ko ba seytaane du ko ruur ni veer bi taxawaayu veer bi amee ci takk takk bi ba ngelaw du ko fay loo jëf ci lu baax noonu nga koy sàmme ba seytaane du ko yàq mooy waral mbaax googu nga defoon démb bu barki démb bu daaw bu daaw jéeg bu daawaati dajaloo ba fees xol bi dem dàqu leer tàbbi ci tax nitu yàlla di wax lak ni tur wi nga xam ni moo turu Allah moy ismu zat bi nga xamni su ci nit jappé man na fexe ommat ko ba mu tek ko ci kanamu boromam ndax leer bi nek ci ismu bi yàlla nak di wone ni tabarakallah nonu nga xamni nonu noonu la tur wi mën leral asaman ak souf nonu yitam nak loolu la mën leral xolu jàmm bu sell ba xol bi lëndëm dàqu fa leer ñëw installer man yàlla ma ñëw dëkk fa waaw wa yadribu llahu al amsala linnaas yàlla nee na misaal laa jox rek way xam nag li ma bëgg wax lan la moo tax nitu yàlla yi wax nañu ni yàlla sunu borom jëmmam kenn du ko gis jëmm jë kenn du ko làmb daj ko te yi sax nee na bu fekkoonte ni sax ci ci ci ci ci jabarut ak haahuut ak laahuut yooyu nee na am na fa tur ñu xamal la ko boo ko zikkaree sax nee na biftek moo lay taneel comme yàlla am na turam yoo xam ni ku dul borom boo ko zikkaree sa yuur toj ñu for ko par morceau parce que doo borom kon jëmmam waxi noppi kon kenn du laal kenn du gis kenn du jege ndax sëñ Cheikh ni yàlla kenn du ko gis waaw kenn amul accès ci moom ñàkk googu ñu ñàkk àgg ci moom nag te jullit bi sudul leeru turu yàlla du mën a sell du mën a ci ruuxam leeru turu yàlla rek moo ko mën def loolu et pourtant logiquement boo dee xool nit cosaanam ni mu takke ni mu tilime pour mu tudd turu yàlla boo ko dee xool waruwul nekk jaaduwul ndax ku sell di ci cosaan di bàkk ku sell ci lépp jaaduwul waaye yàlla nag moo xam ni manqué manqué nit bu ca leeru turam duggul du mën a soppi nit ba mu mel ni yàlla gërëm moo tax mu autoriser nit mu am accès ci turam yi moom yàlla jaxasoog ñoom jonjoog ñoom pour turam yi mën ko fóot raxas ko ba mu set ba mu mën a jariñoo yàlla borom subhanahu wa taala donc moo tax ñu ni nag comme yàlla xam na ni bu nit amul leeram du def lu sotti kon faawu yàlla jox nit leer هز ذات ييغا خامني نك الذات العليه داف يلبو الذات العليه داف يلبو دي گسمو يا موي دغاشا نك سي الانوار والتجليات والمعارف والدقائق غا خامني موي جارين جوليت يي گم يالا سيغا سو لولو benn jëmm rek benn jëmm rek moo ko mën a recevoir te du lakk muy bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom rek moo ko mën a recevoir te lakk du explosé su recevoir ba noppi nag moom sallallahu alayhi wa sallam ci lay xool nag na muy distribuer di ko jox ñi nga xam ni nag a ah, ñoom ñoo yore service boobale tax lakinna zaataka la tura illa kama tandakku qurba jalaaliha al alam yaa nee na jëmm yàlla kenn du gis kenn du làmb kenn du daj ku ko weddi laajal ngand yi ngand yonent ya yonent yàlla Musaa ca la ba mu ne yàlla dama la bëgg gis yàlla ni ko ndax dina sotti mu ne ko moom laa bëgg de yàlla ni ko ah nañ ko essayé ci montagne bi ndax moo la gën a dëgër bu résister rek ñu ñu xool waaw falamma tajalla rabbuhu lil jabali jaalahu dakkan wa xarra Moussa saayiqa yàlla gende ko montagne bi tell ga moo xamloo yont yàlla Moussa alayhi salaam waaw yàlla di ko xaar ba mu ximmaliku mu ne ko nakam mu ne ko doy na sëkk Cheikh nee na ku weddi laajal ngand yooyu kon yàlla kenn du ko gis comme kenn du ko gis te mooy jariñ ñi ko gëm faw mu am lu muy dégager pour ñu jot ci ñoom loolu muy dégager benn zaat moo ko attan bu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku la ëpp ci moom lu muy julli di ko sellal gën seddu ci moom ah, danañ ci ñëw ci kanam fa tabaarakallah ahsanul xaaliqin su yonent bi jëlee nag jox ñi muy jox ci al ambiya waaw ah, xam ni nag yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa muy dajeeg al ambiya ca xadaraam di leen sédd ca la mu jële ci yàlla sayduna cheikh sunu sëriñ nee na wali mashrab مع الأنبياء في حضرة خاتمهم بدون شعور لولو كان دوكو واخ كودول موم رضي الله عنه موني فا يوننتي بي داجالé يوننتي دي لين جوخ لا مو جëlé ca yalla nee na bunt ba nuy jaare ñoom ca kaw am na man bunt buñ ma wutal ci ndeyjoor nee na falay jaar toog ak ñoom ci kanam yonent bi mu jox leen ñu jël ma jël te du ñu yëg ni maa nga fa man cheikh <laughs> cheikh të na fa mu leen di sédde falay seddoo te du ñu yëg ni maa nga fa te bu yonent bi joxe ambiya yi ba noppi anbiya yi man cheikh la ñuy jox man la ñuy jox man cheikh ndax gannaaw ñoom awliya yi la te maa dox diggante anbiya yi ak awliya yi moo tax ko laajee sa wirdu tariqa may bi dafa bare leer gi lu ko waral mu ni ndax damay séddu ci xadaratul anbiya yenent yi séddu ma séddu te duñu ko yëg te bu yonent yi ñëwé ci seen hadara man lañuy jox direct mu ni kon séddu naa ci yonent bi séddu ci ñoom boole ñaar yëpp ñëw ci sama hadara man cheikh nag sédd samay talibé ba noppi doog sédd sëriñ ci nga xam ni bokkuñu sama tariqa te may seen kilifa ñoom ñëpp ni kon ñaag yooyu may ñaagal sama talibé fii ak fële ak fële nee na moo tax sama mayu talibé tax mu wax naan bu bu ngandi awliya yu aqtaab yi bu nu yërndu woon may yi yàlla jagleel sama taaliba ci tariqa bi kon daañu jooy dem ak yàlla ne ko yàlla ñun da nu doon nax mayoo nu dara ndax lii nga defal taalibe cheikh yi ëpp na te ay taalibe lañu kon xadara sayidna cheikh radiallahu anhu ma ngi noonu jotaayam ak yonent bi ak kon zaatul aliya boobu nga xam ni nag muy yëlbu su yëlboo nag lañu cay jariñoo yenent bi jël ko joxe ko ñun ñu jot ko ci ci ci ci tur yi lañ koy jote ñu ngi koy jote ci wasatul asma nga xam ni moom ngay jaar ci asma yooyu pour mën a nàmp ci leer luy sa cër ak la nga tollool waaw lawlaaka ma daharat lana asmauhu ramzan li kulli xaqiqatin wa kiyaanin waaw baa un tasiru tanaqulan wa bi sayriha tabarakallah xam naa kooku moom dañuy ñaan Seydi Ahmed rek moom mu mu mu firil ñu ko waaw ah, sëy Cheikh nee bu dul woon ak yow waaw ah, yi nga xam ni tur yi nga xam ni ñoo yëngal affaire bi ah, affaire bi ñoom ñoo ko fi yëngal nee na ko budul woon yow sama turandoo dunu ci jot lu tax dafa am li ñuy wax al asma al aliya ak al asma an nazila ba am tur yu wàcc moom la ñuy wooyee quatre vingt dix neuf asmaul xusna yi yooyu moo wàcc waaye nag mu am yeneen yu wàccul yoo xam ni juróom-ñaar la juróom-ñaar yooyu wàccul nag soo ko booleeg juróom-ñeent ak juróom-ñeent jox la cent six ah, cent six yooyu nag ku mel ni Aziz Fall nga xam ni yii wàcc sax xamu ko maîtriser wu ko waxuma nag ya nga xam ni wàccuñu waaye Seydina Cheikh fàggul la ko ni la yow bul sonn pour xam tur yooyu booy laazim wala ngay wadifa boo ne allahumma salli allahumma salli allahumma boole nga yi wàcc ak yi wàccul yëpp muy cent six allahumma alif gi un la laam trente ñaari laam yu soixante mim quarante muy cent tabarakallahu nga boole ci haa gi muy cent cinq alif gi di cent six nga xam ni kon ñun lim nu fàggul ci biir awraad yi xamuñu ko sax dañu koy zikkar rek waaw mu di ñu tëbb di ñu tànk di ñu nàndal mais xamuñu lu mu doon léegi nag li tax mag ñi ci tariqa bi di bëgg soo dee jaamu yàlla ci awraad yi nga di ko teewlu xam maani yi di ko sellal ndax mooy tax mu tëbb Cheikh nee na walaqad zayyana samaa dunia bi masaabiha nee na bi foofu la jël yàlla nee na asamaan bi leen gën a jege taaru na lool ndax ay biddiw jant weer mu ni bu dee ci tariqa bi dañ lay wax ni la yow Abdul wala walaqad zayyana samaa dunia asamaan bi gën a jege nee na jàppal ko mooy sa xol bi masaabiha nee na xol bi mooy sa asamaan yow bi la gën a jege loo koy taarale ay leer takku takku leer takku takku leer yooyu jaamu yàlla moo koy joxe ku dul jaamu yàlla doo am leer su ko defee nee julli gi nga julli sëlmal muy leer mu nekk benn làmp bu tàkk ci sa xol woor bi nga woor mu nekk làmp tàkk ci sa xol azaka ji dem màkk ji waqaf alquran bi laazim bi wazifa bi xadara bi bu ci nekk làmp lay doon bu tàkk ci sa xol bi masaabiixa ay làmp làmp yooyu nag mooy protéger xol bi ba yi di bëgg dugal ci biir pour mu xajamal sa digganteeg yàlla du mën a am accès du du mën a accès mukk ci biir xol bi moo tax mu ni tariqa bi wirdi yi li ko tax a jóg yii la asiyaanatu ruuxiya waaye defal maintenance sa ruux lu tax ndax ruu dëkkul fii da nga jóge ca xadratul qudus lu sell lu set bàkk yàlla rek la miin xamul leneen yaram ñu bind ko ci suuf mu takk tilim ban nga bëgg jaxase zulmaaniya ak nuuraaniya bu dul xikma yàlla rek du mën a nekk nit yàlla yi nee nañu yaram du dund kon nit du mën a yëngatu kon du mën a dox mission ndax la xayaata lahu kon faw ruux ñëw mais sew-sew bi nag mi ngi nekk ci li nit yàlla yi wax ni ruux ba nëga ni nanguwul jaxasoo ak yaram ni ruux nanguwul jaxasoo ak yaramu nit ndax ni mu sell ak ni yaram takke ñu ni waaw lu tax bokk nit ñu naan ru di ko tudd ñu ni da ko dand dafa ñëw ba jege ko dand ko di xaar nak nit mën a sell ba ruux mën a ñëw loge ci xol bi foofay problème bi nag ruux baa ngi la dand di la xaar naan la gaawal bokk jullil waxtu yi juróom bu bu mu tardé ndax xol bi tàkk laazimal bu mu tardé ndax xol bi tàkk wadifaal xadaraan waqaf bi alxayraat kulliha gaawal gaaw yow abdul aziz jëfal ndax mooy lamp yi taal xol bi mooy sellal nit ki su ko defee nag mu lay xaar am patience di la xaar loolu ngay dalale xelam nag ci yitte jaamu yàlla mu di lay gis nga yitté wo sel yitté wo lu bax moy tax mu muñal la negandiku day gorgolu nak jël tariqa bi at ñaari at juroom ñaari at fukki at fukki at ak juroom mu ni ah tabarakallah diw kat sel na legi sa ruh, jaxaso ak sa yaram su boba nak ruh fi ngay xamé ni nit ki réussir na mission bobu moy suy fatou suy faatu ruux bi dafay tungoom nafsu bi dem ak moom kaw du am benn bruit du am benn dégât moo tax taalibe cheikh buy buy buy faatu du sukuraat moo tax sayidna cheikh fexe na ba ci awraat yi muy sellal jëmmi nit ki di sellal xolam di sellal léppam ba nit ki sell ba ruux bi ñëw na loger ci jëmmu nit ki jaxasoog nafsu bi lay tax su nit ki dee génn àdduna du sonn du metti du am benn dégât mais attention ki ki sonn di sukuraat lan moo koy dal mooy ruux bi xaar na xaar xaar ba xaddi nanguwoo sellal sa yaram pour mu ñëw dëkk ci mu gedd su geddee buy dem mooy tax dégât yooyu di am waaw yan nañu yàlla fayal sayidna cheikh radiallahu anhu ci li mu fexe ba réussir ko loolu ci ay njabootam kon asiyaanatu ruuxiya ni ngay defale ruu maintenance mooy fexe góorgóorlu laazim budul farata ngant bu mu tarde wazifa budul ngant farata bu mu tarde ca mbooloo ma la gëne xadaratul jumaa kazalika julli juróom waxi noppi ndax tariqa bi dafay ñëw pour protéger l'islam bi ndax ki jël wird jël na jaayante su ko bàyyee alku te mënoo wird te julli woo kon automatiquement da ngay fonk julli te siyaana boobu nga defal sa ruux nag yaa ko koy defale ci mu lay gis ngay yàkkamti sawar di jëm ci jaamu yàlla mu toog di la xaar di la muñal mooy tax ruux bi dund di di am kàttan di am espoir nga di ko ravitailler leer muy toog di la xaar ba jëmm ji sell mu ñëw loger waaw bu loger nag tabaarakallah sanul xaaliqiina nga dund ba faw ñaareel bi ci yi ñuy sant nit ki ci tariqa bi moo di an nadafa al badaniya mooy muy setal yaramam di ko sellal di ko defal maintenance ñu ni pourquoi ñu ruux dafa seexlu bu yaram sellul setul rek ruux du ñëw tax tariqa bi di santaane nit ki di sell fu mu toll xam nga kile ni saa yoo tàggoog njàpp demal jàppiwaat saa yoo yëgee ni sobee ngi demal dindi ko ma ma ma laaj ko sëñ Mansour Al Maktoum lu tax loolu mu ni ma parce que aqtaa bi ci tariqa bi bis bu oustaz Omar Diop góorgóorloo ci boppam ba nu gërëm ko suñu ñëwee di ko di ko di ko defal fatxu di ko ubbi bu nu ko fekkee ak taxaara laab ak sell teeg yaram bu nu du duñu fa tardé day ñor ubbi ko dem seen yoon waaye bu nu fekkee nag ku saggan ku mel man sunu yegsee pour ubbi la fekk la laabuloo selluloo dañuy toxu dem def ko ci keneen ku sell set kenn nañ ci yàlla musal moo tax ñu ni la del sàmmoo set ak sell ci tariqa bi ndax ruux dafa seexlu bu toogee di xaar te setuloo seluloo du mës a ak yow moo tax yi nga xam ni moom ngay dimbalee sa bopp mooy ngay sell foo toll waaw ci jëmm ak ci yëre ak ci barab moo tax ba ci sooy wird sax ñu ni la toogal ci palaas bu sell yow may wird nanga nga sel sell te yow na nga sell ci sa jëmm yow tamit kon nadaafa boobu dafa bokk ci ñaareel bi nga xam ni tariqa bi dafay sant njaboot gi pour mu veye ci bu baax a baax a baax moo koy jox équilibre ndax mooy tax ruux bi du ko seexlu moo tax fa lil ma wa nafsi izzatun wa qalbi xubbun fi sanam min jamalihi sëñ Cheikh moo ko moo ko moo ko tagg Maodo mu ba defal ruuxam maintenance nee na ba ruux ba regg ci leer te ruux bu reggee ci leer day bóof nee na itam fexe na ba tàggat bakkanam ah bakkanam ba not seytaane nee na ba bakkanam jaxasoo na ak ruuxam ba soo ko woyee mu wuyu soo royoo ruu bakkan mu wuyu la man itam mawdo fexe na ba xolam kudul yàlla installé wu fa munu cofeelu yàlla mo lek xolam walil jismi min kullil gada tayyibatuhu wa yajhalu ar rizq duna halalihi mu nu fexe na ba yaramam li mu lekk ak li mu naan lu jaxaso wu ci lu tak demu ci lu tilim demu ci motax tax mu nekk rabbaani yi mu nekk nitu yàlla bu sell tabaarakallah sanul xaaliqin kon defal nga sa ruh maintenance muy siyana defal sa yaram maintenance muy set ñettel bi moy as-siyanatu al aqliya defal sa xel maintenance taalibe cheikh bu ne war na defal xelam maintenance ci xam-xam tariqa bi tariqa xam-xam la so jàngul xam-xam da ci duggal lu ci bokul soo ci dugalee lu ci bokkul dootu la jox leer bu la joxul leer seytaane foya la mooy ñooñu nga gis ñi mbubboo tariqa bi te lu yàlla tere ñu ngi koy def lu xajam lu tilim lu taq lu ne ñu koy def dootuñu sax woo nit ñi jëmaleen ci yàlla waaye seen bopp la exposé nit ñi fàtte nañ yàlla bu yàgg seen bopp leen yitteel waaw mooy la Serigne Cheikh waxoon am ñu yegg ci bëgg daraja ba su yàlla dajale woon jaam yépp ñu tegal yàlla fëtë pour mu toog ca ñooñu bu ñu yegsee dañuy waaxu wuti fëtë yàlla pour toog ca pour moom mu toog ci suuf moom yàlla suñu borom ndax bëgg daraja wala yaazu billah kon xam-xam mooy tariqa bi moo tax mu ni haddibi nafsa bil ulum li tarqa wa taral kulla fahiya lil kulli baytu nee sa bakkan mooy néegu lu mu mën a doon sa bakkan mooy néegu lu mu mën a doon lu lay jariñ rek mooy néeg ba moom sa bakkan ñu ni pour nga jariñoo ko nag dundale ko xam-xam ene boo ko dundalee xam-xam mu jox la lépp lu lay jariñ innama nafsu ka zujaaja wal aqlu siraajun wa xikmatullahi zaytu nee bakkan boo ko dee xool mooy veer bi protéger lampe bi tàkk ba du fay nee na wala aqlu xel mi siraajun mooy tàkk-tàkk ba xikmatullah xam-xamu yàlla nag mooy juuga kay tooyal moom mees pour mu tàkk mu ni xam-xam soo dundeel yàlla ñëw kosi mu tàkk nee na sa dënn leer sa diggante sa borom leer mu ni fa ida ashraqat fa innaka xayu nee na boo ko taalee xam-xam moom sa bakkan nee na nga dund ba faw wa ida azlamat nag fa innaka maytu boo ko bañee taale xam-xam nag bàyyi ko rek ci li réer ak lëndëm l'ignorance nee na nga dee ba faw di dox fekk dee nga ba pare su ko defee mooy ñeenteel bi nag mooy at tazawudu min makarim al axlaaq siyaana ruuxiya maintenance bi nga defal sa ruux bi nga defal sa yaram ci set ak sell ba ñetteel ba mooy bi nga defal sa xel ci xam-xam ñeenteel bi mooy soo paree nag nga songu mbaax songu makaarimul axlaaq muy les vertus fas def ko mbubbu sol ko def mbubbu sol ko ndax makaarimul axlaaq moy tax nit jégué yalla boromam yenent bi nee na yowmal qiyamati ki may gëna jégué dëkk way ci yeen moy ki ci dakk ki ci gëna rafet jukko te yenent bi nee yalla ko wax lo ni ko alquran waxal ma leen ni leen aljana ku sa jukko rafetul do fa dugg ku sa jukko sellul do fa dugg ndax dama ko defar mom aljana pour ñu sonn ci seen jukko bu ëllëgee ñu noppalu fa kon valeur yi nga xam ni mooy jox nit li mu doon ci jukko rek la ko mën a amee soo pare foofu nag nga dem ci juróomeel ba ak mujjantal ba mooy juróomeel bi mooy mujjantal bi mooy li ñuy wax action sociale mooy bi nga góorgóorloo ba defal sa ruux maintenance defal sa yaram maintenance defal xel maintenance defal action sociale moo la des nga yara fi doonte benn nit la jàngal ko gindi ko def ko muy kado pour penc mi xanaa xamoo loolu moo tax ñu joxe ijaaza ja tariqa ijaaza Seydina Cheikh joxewu ko pour nit ñi di ko denc di ko tiitaro dañoo bëgg nga participer ci pénc mi action sociale ngay def te mooy nga jël yow tamit yitte ci sell ci mbaax ci jub ba am ñu la naw bëgg mel ni yow bu nu ñëwee ni la foo jaar ba mel ni nga ni leen dama jàpp ci naasirul xaq bil xaq aynul rahmat rabbaniyati moo ma melal nii ñu ni la kon jox ko nga jox leen ko ñu dem jàpp ca ba mel ni yow ijaaza looloo ko tax a jóg action sociale moo tax kon ki wax ni tariqa yi ay euh, ni ñuy waxee clinique lañu yoo xam ni seeni boroom ñoo jàng xam-xam am ca déggin am ca euh, settantal ba mën caa génnee loo xam ne ki ni jullit laa kese-kese duggul ci tariqa ya muy manqué ba tax ak njullitam du mën a dëggu bu ñëwee ci tariqa ñi mën ko ko mottalil ah tariqa bu fekkente ni euh, fekk nga fa médecin bu bu am compétence mu jox la garab bo xamni bi bu efficace la xam sa jangoro jox la ko kon war nga mën wir waye nak ci kaw nga garab ga namu la ko sante bañ ko bañu juyoog moom soo ko defee rek tabarak la daal dal di am sa wéru bopp waaye fekkente ni dañu la bindal garab lu mu bax bax médecin ba lu mu ay ay ay te jëfëndiko woko namu la ko sante doo te sëriñ Cheikh nee na innal ilaha yàlla sunu borom ila damairi naatirun nee na yàlla ci xol yi lay xool ak ci jëfi yi waaye du xool ci jëmmi nit ñi mu ni jaamu yàlla boo xam ni nag àndut ak laabu xol ak selluteg xol nee njistal la rek waaye du jaamu yàlla ñu ni luy waral kon nit ki jukkoom jëfandikoom di ñaaw ñu ni mooy day fekk xol ba sellul setul laa biirul mu ni awraadu tariqa bi Seyduna Cheikh am na ci garanti gu wér ba ku mu ko jox umanaa u nahjika fi taaddudi saayihim mu ni ñi nga xam ni ñooy njabootu na Cheikh ak fonction yi ni mu wute ci biir tariqa bi nee na boo leen doon méngale ci àdduna mën nga ko tënk ci ni état tëdde kii mooy chef bi président bi ki moy ministre bi ki mooy lii ki mooy lale nee na tariqa bi formé na ci wàllu leer ci wàllu baatin ñu mel noonu ñoo xam ni tey nguuru yàlla ñoo koy seddale ñoo koy doxal نيني لولين كماي موني فك انهم في الذكر والادب الذي في الذكر من ملئ السماء الروحاني يسنغا ميغي ني جوخ ليغا خامني موي تخ ني سيدو تي ليرو طريقه بي موني ني ما واخ ني غا خامني نيوي سيدل نغورو يالا تي بير طريقه بي نينا بولين فكي تي جوتاي ذكري waxuma jotaay ba waaye teggin ba nuy àndal ci zikkar gi nee na da leen di jaawale malaaka mu toog ca kanamu yàlla sunu borom di jaamu yàlla nga malaaka moom bu toog ci kanamu yàlla di jaamu yàlla moom yar teggin fa la yem waaye nag mu ni noonu joxe yàlla ak xam itam noonu la ñuy joxe seen bopp ak seen njaboot seen àq ci àdduna mene moo tax bu nu jógee ci géew wasifa yeeg xadaratu jumaa yi sol seen daal dem di ñaq di liggéey da ngay yaakaar ni ay fonctionnaire u état waaye nag fi ma jëm si mooy la mu ca teg illa charazima yajhaluuna xaqaiqan li diini aw yabguuna xukmal jaani mu ni ni nga xam ni tariqa bi noonu la leer gi bare noonu la mën a defare nit ba muy toog ci kanamu yàlla di jaamu yàlla mel ni malaaka noonu nga xam ni noonu lay demee ba ñu ubbi ko defal ko fatxu ñuy séddale yàlla ci kaw suuf noonu nga xam ni noonu lay demee ba teddal nit ki ci àddunaam muy dund comme buur sëñ Cheikh nee na am na ñu jël wird te bokkuñu ci kuréel boobu ngi ne ko lu tax ñu ñooy ñan mu mooy ñi nga xam ni as lim lañu ay mbooloo yoo xam ni malheureusement dañoo réere dëgg-dëgg tariqa bi tariqa bi diine lislaam la kente sens ba la bu sa diine sellul doo mën a jot ci kente sens tariqa bi mu ne ñooñu nag malheureusement xamuñu lu xew folklore xumb-xumb téesante noonante loolu lañ tabax seen dund aw yabruuna xukmal jaani xatta yabruuna xukmal jaani mu ne am na ñuy jël tariqa bi di laazim di wird wadifa def lu ne te nee na du ñu far ak dëgg mukk du ñu far mukk nee na ci teg caaxaan rek waaw ku yor seen euh, euh, intérêt àdduna rek la ñuy topp yow lañuy faral ñu ne ko ah pourtant ñu ngi laazim di wadifa di xadratul jumaa mu ni fana am yu adduuna al awamira waaye gaflatan tey sax nee na ñu ngi jëfe li tariqa bi santaane waaye gaflatan càggante gu mat sak lañ ko defee duñ ko sax teewlu duñu xam lan mooy sensu tariqa bi yamuñu ca nag defe nañu ni lii tax nga am lu baax mooy ngay noonoon teeg say mbokku taalibe ku raw nga noonu ko ku la dàq nga noonu ko ku la dàq nga noonu ko ku la kër nga noonu ku la gën a am jom ci liggéey nga noonu ko nee na ñoom ñu ngi gis ni alxayr daal fi lu udwaani ci noononte rek ci la mën a faggu liñu bëgg mu ni naam rijaal lañ yoo xam ni yeddaawuna taqayudan نانا نيغي ووتي ني سي طريقه بي لا نو بوك واي لكن بي احد نفس الشيطان موني واي سين بكان اك شيطان مولن باي كي طريقه بي واي سيدنا الشيخ باولين في كتاب تبي طريقه بي اخذوا ولكن لا لخلق طاهرين جيل نانيو ويرد waye banu koy jël japp ñu ni comprimer la boy fajj seen jangoroy xol jëlu ñu ko woon pour sellal seen batin wa ataw walakin la li qalbin hanin soo wootee ziyaara màggal gàmmu lu ne ñu ñëw waaye ba ñuy ñëw xol bu sell ak wut si yàlla indiwu leen waaye wanewu farfarloo moo leen fa indi sëñ Cheikh nee na tariqa bi ñii daf leen di considérer comme ku dem taxani jël matt mu tooy def ko ci sa say say wa dana dis gann te boo dikkee sa cin du ñor ndax mat mu tooy mi nga indi sëñ Cheikh nee na soo demee ci yàlla ëllëg yóbbaale woo leen ñu yedd la te mënoo leen yóbbaale ndax duñu dara ñu ne ko waaw ñoom loo leen tax mel noonu mu ni mooy ñi nga xam ni yette jawwaluna bitaalatan jël nañu wird duñu ko jariñoo ndax taluñu wird ñu ngay dox rek amuñu métier amuñu lu ñuy def waaye bitaa la neen tënkuñu ci dara liggéeyuñu tënkuwuñu fenn ñoo yilu seen bopp bu ñu xëyee rek daaj seen koppati jël seen kurus fol seen trois morceaux di wër fu nu mën a amee mille francs dem fa topp ca nag di tilimal ma ma maxaarimal ixwaan yi tilimal daru gor yi ci tariqa bi waaw nee na di di fal di yëkkati borom alal yi borom alal bojis gis dem diko diko diko siboro neena ñi yalla selal ci tariqa bi ñu ame am amee xam-xam jup bax neena nga def len non fasiyena lu yaqku ci seen kër ya ko def kon euh, euh, pour baña jël heure bu bare ndax dafa na jël na waxtu ak lu tégal xeyna li nga xamni mom lay jublu ci awraad yi nga xam ni tariqa bi da ko indi dafay saafara jàngoro yi ci xol yi moo di leeru turu yàlla bi nga xam ni moom la ñuy def ci biir azkaari tariqa bi leer googu kuy zikkara salaatul fatiha di laazim ji wazifa di def asuru jumaati ba noppi nga yëg ni jukko yi ma tudd sànq ci jukko yi yàlla sunu borom ŋàññi benn ci ñoom mi ngi ci sa xol demal seetaat sa bopp te xam ni médicament bi jëloo ko nañu la ko joxe woon tariqatu imaanun wa amalun médicament bi ñu la jox te soo ko jëlee ni ñu la ko sante mu saafara sa jàngoro boo yoree tariqa bi atu yàlla ñaari at juróom-ñaari at yal ba noppi yëg ni jàngoro yi ma tudd sànq ci xol ci rëy ak kañaan ak siis ak jukko ju ñaaw benn benn mi ngi ci yow demal nga xoolaat sa bopp te xam ni jëloo garab gi ni la ko bi sante yan nañ ci yàlla musal kon bu dee leer gi rek la mu ngi fi ndax sooy jaamu yàlla ci njalben ba ci fin bi turu Allah boobu ma nga ca biir nak yàlla neena lu leral asaman ak suuf war na meuna leral leeral xolu jaam kon boy zikkar salatul fatih jawhara haylala istighfar ba noppi def ko ay at nga yëg ni sa xol amna ci lëndëm lëndëm demal sa néegu bop nga tok nga yedd sa bop nga fas yene bés niki tay dotu lo am ñeug ñeug ci sa xol bu lay gàllankoor sa digganteeg sa borom fi may terminer mooy wax nañu nit yàlla yi ko tarixa bi nee nañu astaghfirullah al azim alladi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum bi ko sayiduna cheikh di joxe mi ngi yemoon ci la ilaha illa huwa hayyu qayyum bokk ci woon waaye dafa jox ay nit wird toog quarante jours moom Seydina Cheikh dugg ci wàllu mystique di xool efficacité salaatu bi mu jox taalibe yi nee mu def xool gis ni ba nëga ni ñi mu joxoon wird seen ruux déclenché gul pour yéeg mu laaj maamam sallallahu alayhi wa sallam lu waral salatu bi ni mu selle ak ni mu amé doole ñi wirdu ko 40 jours te sen ruh fëxagul pour yé ena manam maanaam ñu ko xol yi mo xomaat xol yi mo xomaat inna al quluba la tasda yenen bi nee xol ni weñ di xomaage tilim ba soko xosul du dañ nee xol nonu lay xomaage ñu ko lu koy dindi mu ni tudd yàlla jàng alquranul karim nee na bi mu laajee nag kon lan mooy solution pour wird bi mën a jeexital ba ruux yi déclenché wu ñu ne ko boole ci alxayul qayyum mu mel ni yow mi doon dawal sa oto benn durée nga gis ni kat war nga dem defi vidange dem changer sa huile ak defalaat ko maintenance oto bi nekkaat en forme nekkaat en état bu baax ñu ne xayyu qayyum noonu lay taxawee ci wàllu xolu jaamu yàlla bu koy tudd bu koy sikkar waaw xayyu tax xol bi du wow du xomaag waaw qayyum mooy def maintenance bi waaw suñu waree changer ñu changer kon li ma bëgg rekk terminer ko moo di bu nu nax sunu bopp mag ñi dañu ràbb wirdu yi ba mu sotti jële ko ci Seydina Cheikh am ci ndiga lu wér jox na ko ñun taalibe yi jamono toll na fa xam ni ay conflit ay farfarloo ay xiiro ay ŋaayoo tax na taalibe bu amul yitte doo jariñoo say awraat kon nañu delluwaat ci gannaaw di xool lan moo nu indi ci tariqa bi dana ñëw pour defaru kon lu dul defaru rek bu mu nekk sunu yitte ñun taaliba yi te turu yàlla bi nekk ci biir awraad yi leer gi muy dégagé nga di ko zikkar at ñaari at sept ans trente ans quarante ans war nga mën a toog natt ni kat fa ma nekkoon démb fi ma nekk tey ka gën su amul rek xamal ni kon dem ci clinique bi messin bu baax a nga fa garab bu baax a nga fa waaye yaa ko jëfewul na nga ko war a jëfandikoo kon mbokk yi li ma bindoon eh, eh, eh, defe naa ni moitié bi rek laa jota a waxtaane waaye xam naa ni rek su ma ko toppee dana yàgg lool te bugguma te sang wax dëgg yàlla temps dafa cher sëñ sax nee na ku jënd yërëm ku jur yërëm ku jënd sa kanal kon xëy na li ma ci bëggoon wax yépp des na waaye incha allah beneen yoon yàlla mën na ma ay occasion ñu conclure ko mu nekk benn mawdu kon sëriñ Omar ñu ngi lay sant di la gërëm di wax nag tabarakallahu ni na ma ñëpp ñaanal la Sidi Ahmed dama am ci moom cofeel ndax yàlla ak fi mu bokk waaye yàlla ak taxawaayam nag ndax fa mu nekk la mu fay taxaw ak li ngeen wax sànq ak li kenn waxul wax dëgg yàlla sag la ci diine sag la ci tariqa waaye nag nekk sag ci kër maamam kon maa ngi ñaan bu jataay bi pare ku ne na ma jàngal dog bu waay a defal ko ko yàlla may ko fan wu gudd lool yàlla mottali mission te yéen ñi koy jàppale yëpp yàlla jox leen ay moyen tabaarakallah ba lu muy sumb rek ngeen mën koo àggale kon ñu ngi leen di delloo kàddu gi lu ci dëng rek nga xam ne ni tabarakallahu man ma amul xam-xam lu ci baax nag ci coobare yàlla la ak barke mag ñi ak seen leer tabarakallah ah ustaz Abdou Aziz tabarakallah tabarakallah yaakaar naa ni sa waxtaanu tey bi suñ ko tegoon rek sadaqa daawul azim ku ne yeewee ku dem <laughs> njariñ yi kenn du ko mën xayma li nga fi wax yëpp ngëneel la. jërëjëf fi wax yépp doon loo xam ni tabarakallahu taaliba bu cheikh bu ne mhm. war na ko xam miin ka mhm. waaye réere mbir ak jamono xat-xati jamono dëgg la moo indi loolu bon yàlla eh, yàlla na yàlla yàlla fay nga xam ni ci li nga yëngatu mhm. ak leeral yi nga fi indi tey mu doon leeral yoo xam ni كيف كوريري وون لي سي لي سي سي توروندو سي يعني عبد العزيز دباخ رضي الله عنه دون جند تقصد صابون القلوب والله والله والله كان انا تي تي جنك لير والله ذكر الله قوت القلوب والله والله والله, ان لم تعفي به فهي تموت احيي قلوبكم والله. بذكر الله والله في كل وقت يا عباد الله wallahi <laughs> wallahi ilahi saddami di raaqi li xadrati alxabibi alxaadi di baaqi est-ce que mooy tax nga yéeg wallahi wallahi wallahi wallahi ok ok macha allah yooyu nag nga ñu indil tey wax dëgg yàlla leeralal ñu ba mu leer naññi ci wax dëgg yàlla xol ak ruux dara ci gërëm bu baax moo tax ma ni li nga fi indi lépp tey suñu ci tegoon sadaqallahu alazim rek man ak ñi ma àndal ñoom xaj Pape Diagne ak ñoom xaj Pape Kébé ñu ko fi tegoon ak yamala ko fi dara duñu manké wante nak xamna ni programme rek mo ngi tank ba nga xamni ma ngi xassal participation. <laughs> waaw kay waaw kay waaw kay. tabarakallah <laughs> bisimilah asalaam. nañ nañ ko ak ñaar yi mu andal rek. waaw tur tur tur bi màgg na. sha allah ñu baye ko sant bi mu yobale ko. kon baax na kon jërëjëf. nangul nañ ko ak sant bi. sha allah sha allah kon baax na jërëjëf. macha allah waaye oustaz le temps gars dugg ku nekk laaj sa laaj xam naa ñu xaj Pape Kébé du ñàkk ñu laaj lu ñu war a am laaj ak mbokk yi nekk ci mhm. laan bi yëpp waaw ci sa biir wax da nga bëgg mhm. tudd sànq ba seddu yi nga xam ne moom la sidna cheikh sedd ay taalibeem mhm. waaw man nag laaj bi maa ngi koy maa ngi xëy na boog sama xel moo ko jàpp waaye wóoruma faw ñu ñu laaj lekk ndax mu wóor ñu wala déet ndax loolu boog mu indi loolu nga xam ne dafa sedd taalibe cheikh yi te seddu ko ñeneen ñi moo mm-hmm. indi restriction yi nga xam ni mu ngi ci ziyaaratul istimdaad mm-hmm. yi nga xam ne taalibe bi war na ko mën uh, ziyaara wala mu ñàkk mën a ziyaare mm-hmm. ñu mën indi uh, pour nga indi ñu tuuti précision ci loolu ñaaral ba tam ak li nga wax lépp ci wazifa wax dëgg yàlla loolu nga ne naa Cheikh ñu xëccal juróom-ñaari turu yàlla i bokk boole ci asmaul husna ah boole ci te te ñu koy def ci ci ci awraaj yi naaw ci wazifa ak yooyu. waaw nan la nit di def bon lan mooy indi rëcc rëcc yi nga xam ni wasifa boobu du ko mos a du ko a jëriñ voilà ñaari question yi daal laa laaj su fekkee mën nga mën nga ci tontu le temps gars yi dugg incha allah. macha allah tabarakallahu et tariqa bi e, nanguwul nga nga sàkku dolli ko ci keneen ko ci bokkul lu tax lu nit rëy rëy yëy cër yaa ëpp cër ndax li la Seydina Cheikh seddi jële ko xadaratu xaatimil ambiya jële ko ci xadaraam ñëw ci sa xadara jox la ko fa boo jëloon benn bi séddale ko mboolem aqtaab yi bokkul ci tariqa bi ñëpp daanu séddu ba doyal bay fecc te fekk yow benn nga leen jox waa kon xam nga ki ngay sàkku ci moom te yow yaa yaa ko yaa ko jox li mu moom yaa ko jox li mu yor yaa ko jox te yaa ko ëppale fuuf foofu mooy doy dal sa bopp du dëgg mhm. Mhm. ku yor milliard dem fekk nit ku yoré juróomi deun nga dika ñaan deureum bu la xasse mbaa mu xeeb la yaa ko def sa bopp donc nit ki ku bokul ci tariqa bi la jëriñ c'est impossible sàkk lu to nek nak ñak fayda la moo motax ñu lay sanctionner ci tariqa bi parce que waro xam ku la mëna kudul tariqa bi ndax ñi lu ñu yor ya leen ko sarax wallaahi wallaahi na Cheikh nee na fa ma taxawoon di séddale ferñeent yi doon naaw nee na ku ci ne ca seddu bay fëgg sa dën te mën a hmm. waaw kon yow kii sédd moo ñaagal ñetti yoon kon yow waratoo tëbb ci keneen kooku moom tarixa bi du ko nangu hmm. te maa ngi la koy misaal rek ci góor borom kër bi nga xam ni njëlam mët na sëkk neex na boole ci doomam wàcc ko fi dem di xaaraani ci koo xam ne daraam mëtul est-ce que dina ko neex looluy Seydina Cheikh waaw moo tax Seydina Cheikh bëggul njabootam xaaraani lenn fen ndax moo joxe lépp kooku mooy benn bi ñaareel bi mooy ban nga ni fàttali ma ko li eh, tudd sànq ci wadifa nga xam ne ok mhm, mhm. mooy li wax sànq ni bi mu joxee moom tariqa ci njalbeen gi quarante jours xool laboratoire mystique am dugg fa gis ni ba léegi ni ñi mu mayoon tariqa bi seen ruux fëxagul pour dem ca xadara ba mu ni kon gàllankoor am na mm-hmm. mu laaj maamam mu ni ko xol yi moo xomaag xol yi nag li koy xomaag mooy yi ma tudd sànq ci jàngoro mm-hmm. mooy rëy mooy siis mooy kañaan mooy coxor mooy nafiq mooy bëgg daraja yooyu nag mooy jàpp xolu nit ki ba rey ko ba turu yàlla bi ci awraad yi li muy bare bare bare doole du ko mën a dugg moo tax ma ni bu paree ku nekk nañ duggaat suñu néegu bopp réviser waat suñu moteur te mooy xol bi li ci nekk te baaxul yépp ñu génnee ko ñu xool feeg déwén ba xam ndax dinañ soppeeku wala duñu soppeeku donc loolu laa bëggoon expliquer sànq ci awraad yi baarakallah defe naa comprendre nga wallaay wallaay comprendre nañ ko jërëjëf mel ni Haj Pape daf mel ni yéen ñaar dafa am ku ci ku ci contribution Haj Pape wala <laughs> fi mu daanalee noonu rek ci mu ñëwaat que dafa mel ni euh, li muy wax sànq naan suñu borom daf ko daf ko seet si ñetti yoon ci àdduna mm-hmm. Mm-hmm. waaw dafa fekkoon mooy sàq mi nag comme sa <laughs> eh, eh, eh, sa mel mi ngi feeñal boppam de yow mbubb mi nga sax ba pare yónnee ma ko <laughs> dama lay simmi waaw moom laa wax ni ci yàlla yi nee na ñetti yoon lay ñëw moom yàlla ak rendez-vous ak ak ak ak bi hmm. benn dat bi mooy su nit ki ganee àdduna ba ca septième jour ba buñ koy tudd yàlla dana ñëw déey ko ni ko xol bi bàyyil ma ko muy sama néeg seytaan itam dana ko bëgg jël ci moom waaye yàlla moom bu la waxee pare na ci yam na yoonam ñaareelu rendez-vous ba nag mooy bi nit ki majeure ba su defee yiw ñu bind su defee bàkkaar ñu bind mhm. ci lay ñëwaat ni la xol bi ngalla bu ci kenn dëkk ku dul man yàlla ñetteel bi nag du wax day ñëw constaté dem te mooy bis nit ki génnee àdduna ñu sang ko sang ko teg ko di ko jullee yàlla xol xol ba xam ndax la mu waxoon ak jaam bi matal nag wala matalu ko yooyu mooy ñetti rendez yi. ok macha allah jërëjëf yàlla nañu fekk ñu mat. allahumma amin allahumma amin. allahumma bismillah Hachpa Kébé. waaw man de eh, li ma bëggoon laajte mooy eh, mhm. eh, li jëm ci nga xamante ne ci wasifa. Mhm. li li bëgg laaj bi njëkk bi moy naka la. naka la taalibe bi or mën a ormale wazifa wazifa mm-hmm. waaye bu su may wax ormal bi dama mm-hmm. koy foofu dama kay tudd mm-hmm. dama ci boole waale maanaam ca toogaaya ca toogaay ba ma koy aussi tamit ca ca set bi maa ngi ciy boole tamit ak ak laab bi waaw ci maanaam ca la ci ci colin laab bi maanaam mhm. maanaam ci mbirum mbirum jà jàpp ak fan ak mhm. bërëb ba nga koy defee mhm. waaw beneen bi moy lan mooy njëriñu wasifa ñaar yooyu daal la moom ngay laaj waa kay bi ci jiitu mooy nan la nit mën a joxe maanaam ak ak orma euh, wazifa maanaam la wird bi loolu nga wax. Hmm. waaw waaw kay Maodo dafa wax ni bul sonal sa bopp ci wirdu suba ak ngoon te teewlu nekku fa Maodo ko bind da nee na bul sonal sa bopp yow taalibe tiijan bi ci wirdu suba ak ngoon te teewlu nekku fa bo teewluwul kenn du la tibbal lo yobale boy dem hmm. mu wax nag mom mawda tewlu gi nak ci ñett nga ko mëna dakké moy bo boo di wird so dé jambar lol nga tewlu yalla sunu borom hmm. nee yalla nak nag mën ta tewlu jëmmam ndax jëmmam nekul lu ñuy gis waye katanam bi fenc limu def kéemaan yoy ngay xalaat asaman si lu ko téye suuf si ma toog di wirdu lu ko téye ba màbbul noyyi gi may noyyi ngay toog di xalaat kattanu yàlla bi mu roof ci yow ngay teewlu sa borom nee na boo nekkee jàmbaar piir boobu ngay def nee na bu sa njàmbaar wàññeekoo nag ba mënoo teewlu yàlla nga teew lu boog yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam nga teewlu ko yonent bi jàngale la ko Maodo daf ko jàngalee ca ba muy nekk leer ba ni mu génne àdduna bés bu set kat yi jank ci khilas kon talibé tidiane bu jokk ci mawdo bu wird warna naa muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam ñettelu na étape bi gëna a doole nak bo mënul teewlu yalla ni yonent bi nga teewlu bok sa sëriñ hmm? sa sëriñ bila may wird nga di ko teewlu ngay jëmmam ñu ñu la boy jël ci nit tariqa na fek nga sopp ko fekk nga doyloo ko wóolu ko mooy tax booy toog di wir di di ko teewlu mu mën la tëbb kon ci ñetti anam yooyu la Maodo wax ni ci la nit ki mën a teewloo buy wird ba su paree ñu mën koo jox yóbbal mu yóbbaale ko mu ni waaye bu fekkente ni eh, teewlu woo ko nag kooku moom da ngay sonn rek di wir di suba ngoon waaye doo jariñu defe loolu leer na. macha allah eh, Papa Kebe. waaw waaw waaw waaw. waa leneen li nga laajoon. Oh, beneen bi ma dama doon wax maanaam léegi ci wàllum eh, ormal bi ci wàllum place ba nga koy defee. waaw maanaam ci laab bi ci laab bi. Mhm. maanaam laab bi maanaam ci moo xam ci colin ci lépp li nga xamante ne dafa jëm ci colin bi. ak mhm. tamit ci wàllu eh, njàpp. waaw maanaam après nga ni lan mooy lan mooy sens su wadifa waaw akay maanaam njëriñam waaw njëriñam waaw dëgg la mhm. su ko defee wirdi yi ni ngay sàmmonteeg laab ci julli noonu ngay sàmmonteeg laab ci boy wirdi laab ci sa yaram waxuma sedd laab lañ wax nit mën na am sobe sangoo njàmpeeg saabu set na waaye laabul mhm. moo tax laab lu jafe la mooy fexe ba dindi sobe ba ba mu set sellal ko su ko defee bu sa yaram sellee laab sa mbubb ba nga sol laab barab ba ngay toog itam di jaamu yàlla ci laazim wala wadifa wala ah, xadratu juma tamit na barab ba laab moo tax mag ñi taamuwuñu woon ñu koy def ci ay kër jàkka ja la ñu ñu ko fay defe ndax kër ñëpp yamuñu hmm. am na koo xam ni ay njabootam ci biir këram mën nañu tuur ndox fenn te kenn du ko yëg moket ba am sobe moo tax ñu bëggoon ñu koy def ci jàkka muy mbooloo fu mel ni ay États-Unis yeneen réew yi nga xam dañuy am ñoom seen siège nag loolu moom lu mën a nekk ndax dafay taxaw taxawaayu jàkk mhm. dañ koy sellal di ko laabal kon mboolem luñ lay sant ci laab ci julli moom lañ la sant ci wàllu wird ndax jaamu yàlla la te yàlla kenn du ko jaamoo lu dul lu sell tayyibun ko sell la du nangu lu dul lu sell beneen bi moo di e baat bi rek ci lay ñëw <laughs> mooy fonction bu ñu la jox nga di ko saxal di ci liggéey bu weer dee nga fayeku hmm. wadifa jawharatul kamali ci lañ koy jàng hmm. Hmm? moom dong lañ jàng jawhara lu tax waaye dañu bëgg soo dee góorgóorlu di sellal sa jukko di sellal sa jaamu yàlla bés bu set boo xëyee wadifa ñu takkal la benn caq ñu takkal la benn caqu leer nga sañsee ko nga wadifaat ngo ñu takkal la caqu leer nga nga sañ sañsee ko waaw ku dund ay at yu bare nag bés bu set ñu takkal la ñaari yoon caqu leer war ngaa mën boo génnee ñu xam fa nga bokk te doo wax <laughs> ah, <laughs> ah jawharatul kamali ci wazifa rek la am moo tax ci laazim bi ci xadarata jumaa yeeg yëpp la nga fa jëlee ci wazifa bi nag ah ci lañ lay décorer nag takkal la càkku leer boobale moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy toog ca markazul fuhumi wa maani ñu ñu agréé nga xam ni ci tariqa bi ñu ñu agréé ñu am ñu am kattanu dem ca markaz boobale di fa siéger kenn ku ne ak sa njaboot nga di leen plaider la ñu manqué la ci seen wàllu pas-pas ak seen wàllu jaamu yàlla nga leen ko fay mottalil moo tax markaz la boo xam ni nekkul ci kaw nekkul ci suuf ci diggante bi la nekk tax ma ni kuy wadifa suba ak ngoon boo génnee war nañu xam foo bokk te doo ko wax waaw moom mooy fi nga xam ni fa lañ lay tappale collier bi nga xam ni nag moo lay ràññet leeg ñeneen ñu dul yow ah, ndax day alkamal dafay feeñ ci sa jëmm muy ak mët tabaarakallah tabaarakallah ah, jërëjëf jërëjëf sa uh, uh, junj jawharatul kamal waaw am benn laaj bu ngi ci doon laaj ngi firul ñu ko ifaadati minka ilayka ifaadatika minka ilayka waaw mm-hmm. suñ ci mënoon dimbali ci firi ci firi bi waaw baat ci mu di ay mujj ci jaratul kamal waaw ifaadatika minka ilayka mm-hmm. ihaatati nuurum mutalsam mm-hmm. waaw sallallahu alayhi wa sallam xam nga boo ko tàmbalee ca kaw nga koy dégg man sax def naa ko ci ay ay ay ay audio dinaa leen ko yónnee incha <laughs> waaw xam naa danaa àggale chapitre bu mujj bi rek ci ci wàllu firin ci sama mhm. xam-xam bu gàtt nag ah, ah, waaye boo tàmbalee ca kaw ci nga koy déggee incha allah boo cofee ifaadati ka rek doo mën a dégg li ci des su dëgg te comme temps bi dafa dafa xaw a xat defe naa ma ma ma yónnee Abdou Abdou Mbow audio yi su ko defee moom bu la ko yónnee yow di nga ko mën a tàmbalee ci allahuma bu njëkk ba mhm. ba agsi foofale incha allah dañ ko taaxir lu bokk. ngay mën a teewlu nag lan mooy sensu ifaadatika minka ilayka ok xaatati mu talsam. daañu ko dénk xaaj Pape Diagne comme ça moom su jokkoo ak yow incha allah xam na dana ci jot. incha allah waaw kay waaw kay incha allahu taala. lañ <laughs> ci góorgóorlu jaañ la sant de jaañ la sant de. <laughs> bisimilah. dafa mel waaye daal yonent bi. <laughs> yàlla ko jëlee ci boppam delloo ko ci boppam. est-ce que. ay faa batika. Mhm. min ka ilayka la. Mhm. yàlla mhm. daal bi muy wut bi muy wut koo xam ne bu ko xoolee gis boppam yonent bi la xool la créé yonent bi taxaw yàlla tàcc boppam kañ boppam mhm. ni que li ma doon wut am naa ko te mooy yaay sama seetu kon yonent bi yàlla nga ko jële ci boppam ngir tere la ko boppam delloo ko boppam moo tax léppam léppam léppam yàlla Ya, macha allah dafa <laughs> mel ni dafa am um, uh, benn njangeen kan? ci bëgg bokk de ah. sa sa kan, adi ah. eh, ah, bismillah Ba, mbaa du laaj mburu rek salaamaaleykum waaleykum salaam waaw oustaz ngi di ziar lu bëri waxtaan maa ngi lay lima ziar waaw li ma rek muy xaaleen bi ak jaami loolu ma si xaw a waaw waaw wallaay mhm. waxtaan bi dafa am solo ba nga xam ni des fois da ngay remettre en question yo xam nga mhm. man personnellement bo sama bopp laa mën a waxal parce que mhm. li nga wax fii dafa nekk loo xam ni dafa dafa dafa nekk lu am doole dëgg la gaa man ku si ni man maa ngi maa ngi góorgóorlu nag wax dëgg yàlla xam nga mais da ngay xool ni li nga wax fii ni yëpp pour nga mën a yéeg lañ koy wax xaw ma yegg wala pour ñu mhm. mun la nangul lu jafe la pour mhm. doomu aadama bi def ko mhm. te ku nekk ngi wér de ku nekk ngi julli mais da ngay xool ni ngëneel yi ñu si wax yëpp xam nga wax si laab bi wax si teewlu bi surtout teewlu bi teewlu bi surtout waaw xam nga da nga xam nga da ne par exemple soo teew teewlu dëgg nga maanaam nga méditer si semence ni yàlla bindee su sa sama waaw teewlu ci kattanu yàlla waaw. <laughs> waaw ci nu yàlla waaw. Mm-hmm. nga xam ne mm-hmm. kenn du moom mais loolu aussi même mun nga ko di ko def. Mm-hmm. mais day mel ni sa xel dañ ko këf si leneen. dëgg la xam naa li nga wax. ah waaw. xam naa li nga wax waaw. waaw donc da ngay xool ni dëgg la ñu ngi wa ñu nag lu ñu mun di jéem a teewlu. mais teewlu boobu lu jafe la pour nit am ko. waaw xam nga xam nga julli. moo gën a fort ci jaamu yàlla yi. dëgg la. dañ na sant nga teewlu ci mm-hmm. mais yàlla xam na ni ñëpp yemuñu mm-hmm. moo tax ñu ni la sooy julli soo mënee teewlu ci njëlbéenu julli gi nga def ko ba mujj gi ba ba julli gi jeex nga teewlu ko lépp mm-hmm. soo ko munul nga teewlu boog ci njëlbéen gi sa kemtalaayal kàttan soo ko munul nga teewlu ko ci digg gi sa kemtalaayal kàttan soo ko mënul nag xanaa kii julli ba mu wër benn rakkaa ko dese war naa mën a dellu siwaat xelam xam ne mi ngi ci julli mu lu boog yàlla ci ci rakk bu mujj boobale moo tax yàlla xam na ni ñëpp yamuñu mm-hmm. te du te kenn lum mu mënut waaye li mu sant nit mooy mu def effort mu jéem ku jéemul doo mën dëgg léegi da ngay gis kuy wird teg téléphone am ci wetam yaa ngay bind yaa ngay xool lu ne nga dugg ci te li tax ñu ni la booy wadifa sax nga fay sa lam mooy pour bañ sa bët am lu ko traversé ba tere la concentré wu mm. donc concentration dafa nekk charte boo xam ne mooy tax nga am li nga bëgg soo ko dul jéem nag doo ko mën waaye danga koy jéem loo nekkul ndongam doo nekk sëriñam da nga koy jéem mhm. bo bu seetaane këfee xel mi nga këf ko indiwaat ko <laughs> ah, ah nga sant di nga ko mën <laughs> rek nga xëccaat ko indiwaat ko ñëwal ci teewlu yàlla sa borom <laughs> wax nga dëgg wax nga dëgg waaw beneen bi tamit mooy si laab bi mhm. waa demal demal beneen mooy si laab bi xam nga dëgg la booy booy loo booy jaamu suñu borom fi nga war a mhm. toog war na laab mais mm-hmm. laab bi gën a am solo pour man mooy laabu xol. Hmm? te xam nga da nga wax moom laa wax sànq ne Serigne seex nee na. waaw yàlla soo ko dee jaamu. Mm-hmm. nee na te xol bi laabul sellul du gis li koy defal. Hmm. la junj sànq ci jàngoro yi nga xam ni mooy tax xol bi loo jaamu jaamu yàlla doo mën a yéeg. Hmm. donc laab bi ëpp solo mooy laabu xol. su laabu xol bi matee nag ba noppi nag laabu biti bi mat mm-hmm. donc bu ci ne da ngay mottali sa morom dëkk la waaw benn mënut a dem bàyyi morom bi mais est-ce que xol bi mën na bañ a laab xam nga nit ki doo gis sa sikk hmm? <laughs> adi laa laabu laabu xol bi mënoo ko ndax nag ndax wax na insaanu ala nafsihi basira waaw mm-hmm. yàlla nee na ku ne yaa gën a xam sa bopp ku dul yow dëgg donc nit ku ne war nga war nga boo toogee ak sa bopp rek yàlla rek moo la wéttali nga xam defu yi nga am boo ragalee sa sa conscience nag doo doo lim say défaut il faut nga am mm-hmm. courage lim sey défaut man dama añaan pourquoi may añaan yàlla bare le na mm-hmm. ku ne sédd na la laata ngay gane àdduna kon na bàyyi añaan Maodo nee na ba ma wóoree ni nit du te yàlla jox ko lamu mu ko yéene laa bàyyi dëgg la yooyu ngay topp benn par benn di corriger sa bopp ne xam nga sa bopp mhm, dëgg la mhm, mhm. jërëjëf jërëjëf Fall dafa am rek loo xamante ne bëggoon naa ko ci eh, waxta dolli eh, dolli waaw Fall ah, biñ ko woowee ñaan ko Euh, pour mu ñëw defal ñu émission bi euh, moom ci boppam daf ko nangu ne moom lépp li nga xamante ne jàpp euh, jàppoon na ko bu ko sëñ Sidi Ahmed woowee mhm. day bàyyi lépp donte waaw donte sax moom ci jëmu boppam sax du gan ci njab ci njaboot gi la bokk dëgg la ci laa bokk piir nag waaw waaw ci ndigalu sëriñ bi ñu bëggoon ñu mhm. bëggoon feddale coloré boobu jërëjëf ah, ñi nekk ITFA dégg sa ñaan ñaan bi nga ñaan bi nga bi ñu ñaan ñu mm-hmm. ñaanal ko suñu wasila sëñ Sidi Ahmed mm-hmm. si di euh, incha allahu rabbi bëgg euh, bëggoon naa balaa ñuy tëj waxtaan bi rek ah, mm-hmm. bu fekkee ne mën ne mën ngeen def ñaan incha allahu rabbi waaye am na benn rek bu may bëgg laaj tamit jawaratul kamal ci mës a dégg ci mag bu baax bu ne mhm. boo koy jàng boo yeggee ba ci juróom-ñaar ba sa toogaay war nga ko defaraat mhm. boo xawoon jeng tuuti war nga ko defaraat ndax boo mhm. eggee ba ci juróom-ñaar yi amaan naka gan ya lay seet si ca ba nga egg ci juróom-ñaar lay fa lay fekk waaye boo eggee ba ci fukk bi na nga ubbi say loxo tàllal say loxo te nangu ñaan euh, beneen bi mooy bi may beneen bi mooy ah ana fan fa nga mënul toog wasifa jàng fa jaratu ka maanaam fan lañ koy tere fu ñu ko jànge mm-hmm. waaw salaamaaleykum jërëjëf jërëjëf e kamali mooy mbir mi gis toog ci jotaay jawharatul kamal juróom-ñaari per yi ñëw ngay teew lu defaraat sa jotaay sa toogaay ak ki defar jotaay toogaayam ci njalbeen ba ci mujj gi li leen wuutale mooy xam ngeen gis nga ñaar ñii bu ñuy wadifa dañuy lem mbalaan ba yegg ci septième per bi door ko tàllal septième per bi mhm. door tàllal mbalaan ni ñii dañ koy tàllal abaa ñuy tàmbale ñii ni dañ koy xaar ba septième per bi nga xam ni ci la gan yi di yegsi ñu tàllal ko Maodo ni déet gan kay da ngay defar lépp ba mu sotti laata mu yegsi waaye ba mu ni salaamaaleykum ngay doog a lal lal bi di fëgg-fëgg mu xam ne yow mi kat danga nga sàggan kon ñi nga xam ni ñooy lal mbalaan mi tàllal ko ci njalbeen gi ñoo jëfe falsafa Maodo bala itam baax na waaye nag bee ko gën xam nga ni tey dinga am gan war na bu sa soxna dem marché mu feeñ ca kër gi war na ci feeñ ci ni gan dana ñëw tey jii waaye xaar ba gan gi ñu yoo ngeen doog a fëx defar kër gi loolu jekkul nekki noonu noonu moo différencier ki defar toogaayam ci njalbeenu wadifa bi concentré wu yar ak teggin boobu yonent bi ni woon tëll du changé jotaayam sañu toogaayam kooku mo upp mérite ki xaar ba 7e père bi mu dogo defar togayam bu ci ne nak baxna waye waaye mo upp ëpp mérite noonu jawharatul kamal mm-hmm. jawharatul kamal ben ken du ko jang ci luddul dul laab taxaara mm-hmm. maa iya lu parce que jafa bok ci ay chartam <coughs> bala mu jariñ nga jaar ko fofu koku amul werante donc koo xam ni kii boo laabul taxaara maa iya doo ko jàng boo solee mbubb mu sellul doo ko jàng amoo droit jàng ko lu tax ñu ni la sax ñii wuute ci borom xam-xam yi ñii ni booy dox ci suuf suma la wóor ni suuf si sell na laab na mën nga ko jàng boo yeggee ci septième bi nga toog parce que xam nga ni fi ngay dox laab na sell na fa ngay laab na sell na ñii moom booy dox doo ko jàng pour éviter nga jàpp ne sell na te fekk sellul mhm. kon dooy dox ci suuf ñi wax ni doo ko jàng man ñoom laa àndal doo ko jàng dangay toog ñi wax ni aussi doo toog ci kaw di ko jàng ñu ni wala boo toogoon ci fauteuil di ko jàng ba yegg septième bi àggal suuf nga toog jàng ko donc dafa am ay werante ci xam-xam Maodo nak buy indi fay indi werante yep ni lay liw li la wax li la wax waaye man nak bi la and kon mom ken du ko ci barab bu mu la wor ni fi sobe amna fi mo xam di dox mo xam barab boy tok te mu xam ni fi dafa am sobe doog fa jang do tax nak dang kay wutal place bo xamni bi wor na la ni ni sa jëm laabe no la barab laabe toujours ma del fa jàkka ja moo toujours mo gëna dal xel bu dul jàkk ja sa néeg wala fa ñu jàpp ni siège la di ko toppatoo ngir mu méngoog ak jaamu yàlla waaye fu nekk nga teg fa sajaada rek jàng ko wóorul donc loolu laa la bëggoon indi ci leeral ci cadre jawhara oh, euh, jërëjëf oustaz mhm. xanaa ke de ci sa kàddu dama ci dégg loo xam ne tabarakallah sama maas mi nga xam ne seen alliwu soriwul xëy na léegi daañu koy mbir mhm. da nga tudd jàng lu dul ci laabu maayiya Wa ta hara mhm. eh, ah? <laughs> ma iya wa ta hara ma iya ma sa korunda sa korunda kamba namu dona mui teke mana mo i labu noh gereje ah gereje ma mi ki amul sabeh mana mhm. pi jakpana wala musanggu sanggu farata bo hamni bi eh, yakul sanggu ba donko cila bo hamni bin noh musel musel ngamana dugugin am durwa jan gadi wata kamal. foofu am na sax euh, Seydou Omar. bisimilah gis naa benn téere bu waxaabi yu ne yi bind. Mhm. dama leen ci yàq lu mel ni xeme. Mm. ñu ni waaw ndax da ni lu tax tariqa bi Seydina Cheikh nee na jawhara boo amul laabu ndox doo ko jàng. te mhm. jullee gën a forte boo timee mën nga julli faamee ngàtt. <laughs> est-ce que. <laughs> ma ni leen. <laughs> Mhm. du juum. xam nga ki nga xam ni juma bu ca demee moom tey maa ngi dem juma amna naa ngantu jàpp damay tim juma wàcc na ma xam nga lu tax mhm. parce que lu ko wattu tisbaar a gi fi mhm. bu tisbaar amul woon rek damay daal dem juma tim waaye comme juma je su ma demee man tey sama ngant damay tiim damay toog sama kër bu juma weesoo ma julli tisbaar ñeenti rakk ak sama tiim jawharatul kamal pourquoi boo amul laabu ndox ñu ñu la doo ko jàng mooy am na loo ko watte salaatul fatih vingt kay kiif kiif rek kiif kiif la kiif kiif wallahi wallahi kiif la jazakallah xayr voilà jërëjëf ustaz ci leera bi bismillah haj pap dafa mel ni soxna jeebaate dafa am laaj bu mu bëgg a def ayca bismillah bàyyi ko ñu laaj ko waaye comme ça xam ragal ne xaj dem suñu parce que waxtu bëgg dañ ko rek allah ñu dellu ci programme bi allah bismillah asalaamaaleykum ya, mbooloo mi waaleykum salaam wa wa ngi leen di nuyu di leen eh, kan ziyaare mm-hmm, di rafetlu waxtaan bi oustaz Fall jërëjëf comme da nga dugg ci wàllu kamal man du ma tëdd mais mm-hmm. daf ma dikk ci gént may mm-hmm. nelaw may jang jawratul ci biir nelaw bi Mm-hmm. mais xaw ma ñaata yoon laa ko jàng mais dama jékki-jékki mm-hmm. rek mel ni dañ maa yëkkati lal bi ma toog. di mm-hmm. yeggali yit bi ba mu jeex. mu mel ni dañ ma bëm xaat ma tëdd nelaw. mais daal ci nelaw la ma dikkee xaw ma ñaata yoon laa ko jàng mais sentir naa ni jawgatul laa doon jàng jóg naa toog jeexal ko. tëddaat nag mais bi ma xëyee ma ne ah. xam naa dama ko war a def àddiya ci yoon yonent bi. semaine boobu yëpp ma di ci jàng fukk ak ñaar daal. moo nekkoon sama laaj ci biir nelaw bi ma dikkee. jërëjëf xam nga xam nga la nga la nga jàng ci nelaw ya moom <laughs> du yow du sa programme bopp ah, ba nga xëyee rek da nga waroon sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ndax loolu moom tawfiq pire la allah gént gént jàng jawhara bi moo tax ba nga xëyee sant yàlla sa borom rek moo la war allah li ci jéem a def dog nag naan dama koy jox salaa sallam yëpp yemal ci wasifa bi rek la nga jàppoon dal ba gis hmm bul ko changer moy firndeen ni yaa ci yoon wi sha allah ndax bobu am nga ci ndigal te benen dog bi nak mom ken doxula ci ndigal hmm yaa ngi mm-hmm. wati fa suba ngoon di jàng douze jawarta kamal mm-hmm. ba nga tëdd gentu lola day lol lol nga dan def ba gentu lola japp ci rek bu ci lenen ma sha allah <laughs> <laughs> jërëjëf. jërëjëf soxna Jabaate euh, euh, euh, ci laaj boobu. Mm-hmm. waaye mbokki xarit yi ñu ngi ñu ngi àndoon oustaz Abdou Aziz Fall waaye dafa mel ni. waaye bu lox oustaz waaye boo ne oustaz damay tiit. ah déet déet fi nga nekk nii ah. yaa yaa ñu fi féete fi nga toog nii. man kay ndongo laa rek sëñ bi ndongo laa damay rek. Allah, Allah, Allah, Allah ya, Fall waaye loolu ngay làmbatu yàlla ci yàlla defal li nga ci yaakaar yëpp taw si li nga ci yaakaar yëpp amin ñu xam-xam amin yàlla boole ñu ko yàlla yàlla def yokk fasaxa bi nga fi indi tey wax dëgg yàlla tabarakallah amuñu amuñu fay amin waaye xaj bala ñuy bala ñuy tëj programme bi ñu delloo la kàddu gi rek incha allah ngeen indiwaat programme it fois bala ñuy jox euh, sëñ Abdou euh, bismillah jërëjëf Hadj Omar ah, am nañu mbégte wax dëgg yàlla macha allah tur bi màgg na. Mhm. Abdoul Aziz. sant bi <laughs> bàyyee. ah sant bi màgg na de. ah màgg na de dañ ko koy bàyyee moom xam nag moom incha allah. ndeysaan ndeysaan. jërëjëf jërëjëf macha allah Fall jërëjëf. jërëjëf ni nga ko waxee rek heure bi euh, tànc nañu. xanaa ñu ko mu gaaw rek comme niñ koy defee nii saa su ne tey àjjuma nii la ñuy def euh, xadaratul juma seet borom xam-xam yi. ñu ñëw euh, indi leen fii ci Zoom bi ñu ñëw waxtaanal ñu suñu diine ñu laaj ñu tontu ñu mën a yeesal muy lu am solo euh, naka démb aussi muy muy muy Thursday di jeudi euh, am nañ ko fi ñëwoon doon waxtaan ci éducation jàppale ñu ñu war a def ak ci njàng mi façon boobu rek dañuy ñu mën a góorgóorlu ñu nekkin gën a yomb fii muy ñaari fan yooyu jeudi ak vendredi waaye comme ni ñu koy waxee rek solo mooy ñetti fan yi nga xam ne sëñ bi si boppam moom mooy jàngale alxuraan macha allah di fii ci Zoom bi euh, bi ci njëkk di euh, mardi ñu wax Tuesday mi ngi def euh, diggante huit heures ba dix heures huit heures lay door mu jeex dix heures koy def ci olof jàng ñi koy def nag sori nañ ci lool macha allah mu ñëwaat encore samedi def ko diggante une heure ba deux heures et demi one ba two thirty Saturday mu def ko ci anglais jagleel ko xale yi waxtaan bi gën a gën a yomb waye kep ku ci bëgg bok rek xañ nga ci euh créaté encore lendemain muy dimanche mu ñëwaat encore euh jàngalé digënté 1h ba 3h bobu tamit mu def ko ci wolof euh, te am na ay groupe yu ñuy def yi jàng xam ne waye mëna tollu ci njàng mi rek mën nga ci bok ñu fexé ba nga euh, mëna soré inshallah ñoñu bo ci boo ko si seet rek ku bok ci et par rek inshallah dina la mëna fexé ba nga mëna a registre mën a bokk fu waaye mën a nekk ci aduna da nga am internet bi rek mëna suivre ci zoom bi ak sëñ bi muy kéemaane lool euh benen moy waxtaan bi nga xam ñing koy def par mercredi muy wednesday euh di ci jang euh di ci waxtaan bi nga xam mo ko jëmele jëmale it ba kanam ci digënté 8h et demi ba 9h et demi sha allah mën nga dem tamit ci youtube bi comme fii nii ñu ngi ñuy ñu bëri ñing ñi sétan ci youtube bi nga subscribe it pa institut ngay def bu ko defé li nga mën a rattrapé mën a xool njàng mi di nga mën a xool émission yi fi jàll yëpp macha allah dara du la donc ñu ngi ñaan ñëpp ñu subscribe comme ça di ko mën a gis su leen weesoo ajuma maa ngi jéggal ci kuddeel bi macha allah ko bëggoon jàllal rek mu feeñ nit ñi mën ci toog jàpp macha allah noonu la noonu la noonu la wax dëgg yàlla ngi ci programme bi ba tey di kontaan ci teewaayu Pape Kébé bi macha allah ñu ko doon dégg boobu ba léegi ci baat bu tey bi baat bu jekk bi tey nag jàkkaarloo na jëmm ji barakallah jërëjëf Pap am am ñoo bokk maa ngi maa ngi lay sante yow di la gërëm di la ziar yow ah, ah yow Sass maa nit maa ngi lay sant di la gërëm ah, ci boole ci boole ci ñi nga xamante ni jabootu ITFA bi yëpp mm-hmm. la sant di la gërëm xëy di ñàkk di xëy na waxtaan bi neex na ah nit ñi am na liñ ci jëlee di ñak ci jëmmi jamono nañ di nga di nga dellu ci nga ñuy mën ko ñu mën ko ñu mën ko éggalé xamna di ñu mën ko éggalé inshallah allah ay laaj yu bëré bëré bëré yo xamante xéne ñi na ñu taw temps bi tank nañ bu nga xamante mënu mënu ñu ko laaj dëgg la ñu euh, di la ñaané ñu wër ak wërlé allahumma amin allahumma amin sam sam njaboot amin ya nañ ko yàlla boole amin di barké sidina alayhi wasallam amin amin ya rabbal alamin a Hadj Omar. jërëjëf Hadj Pape Kébé jërëjëf Hadj Pape Diagne euh, oustaz mooy ñooñu nga xam moom lañ fi àndaloon tey ànd ak yow tey. macha euh, allah la gërëm rek wax dëgg yàlla comme ni ñu koy waxee ci turu xadara bi yëpp. Euh, jërëjëf sàkku ci yow ñaan di sàkku ci di ko sàkku ci xadara yëpp foofu foofu nga nekk ci Sénégal. incha allah ñu ñaanal suñu si suñu sëriñ suñu wasila suñu bunt. incha allah incha allah si. nga xam ne loolu nga junj sànq ne nit wax dëgg yàlla bala muy bala bala muy baax dëgg-dëgg day fekk mu mën defar nit ki exemple. dëgg la yàlla defar nañu ko. ñoo koy sant yàlla bu baax a baax a baax yàlla bu ko. muy action <laughs> ma ngoog ma ngoog macha allah. wallaahi <laughs> wallaahi voilà boobu la xaj Pape Diagne doon wax sànq léeg-léeg dem ba ëpp ci ci jamono. waaye tabaraka natt boobu la ko yàlla teg yàlla ñu ko ci gën ko dëgëral. wallahi wallahi yàlla yokk suturaam ci dara yéen bi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi lu jox jox la nga bàyyi nga nga wax ak mbooloo mi ban bàyyi jox lañ kàddu gu mujj rek du muy tàggoo te du tàggoo waaw tabarakallah moom day xanaa jiital ci rek sant sëriñ bi gërëm ko te itam di ko feddalil nag suñu cofeel ak suñu dog njaboot ci moom la ma waxoon Oustaz Assane Thiandoum ni ko waxal sëriñ bi ni ko man alalu Cheikh Alhaaji Malick laa fu mu ma soxlaa daal naka wax rek ci kàttanu yàlla ñaan yàlla sunu borom yàlla bu nu yàlla nattu ci mu soxlanu ñu gàntu ko yal nañ ci yàlla sol donc ñuy feddali aussi njaboot bi yëpp tabarakallahu sunu kóllëre gi yéen ak di leen sant ci confiance bi vraiment amuñu seen fay yenn yàlla fay leen yiw te di wax rek ni sama turandoo moo ko waxoon mu ni hmm. kilifa mënut a ñàkk ci dundu nit hmm. mu soo demee ba amuloo kilifa xool nga ñépp kenn doyu la demal ba ca ëkk ba ca àll ba nga takk fa sa bopp ndax kilifa mënut a ñàkk kon nag yàlla may nanuy kilifa nanu leen ormaal nañu leen jàpp nañu leen dimbali nañu leen suturaal nañu leen teral nañu leen déggal ta moytu féewaloo ci kër gi du ñu jural lu dul lor zikkar ba màggat te doo jariñu jamu yàlla ba màggat te doo jariñu kuy féewale ñun bunu ca bokk kuy xàjjatle bunu ca bokk kuy wax lu ñaaw bunu ca bokk nanu ormal njabotu mawdo gi setal sen deri te japp ci liñu tariqa bi sant lolou mo nuy jëriñ moy sama kaddu yi mujj assalamu alaykum wa rahmatullahi ustaz jërëjëf ah mbokk yi xarit xana bon lo yaakaar do ni sëkk tay ci ci benn jataay ah, noonu doylu ñu yaa ustaz comme ni nga xaj faab waxee dañ daañu indiwaat ci benen jamono inshallah allah yal yalla ko yàlla ñu indil ñu genn bi nga bi nga ñu yoral kon mbokk yi xarit la la ñu doon tey ci programme yi Isfa ci xadaratu jumaa euh, ñu ngi santaat ñëpp di ñaanat yàlla yàlla may ñu fekkee jamono ba ñu kenn teewee ci yoon ci bis sallallahu alayhi wa sallam hada billahi tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa ci taamu ak tànn bi ngeen tànn rajo ITFA rajo ITFA ànd ci programme yu am solo moo xam ci wàllu diine la moo xam ci wàllu actualité la ak lépp luy soxal dund doomu aadama rajo itfa ànd ak yéen lépp luy askanu gambia wala mu soxal askanu sénégal te nekk ci biir amérique ak li ko wër di ngeen ànd ak rajo itfa ci programme yu am solo rajo itfa di rajo askan wi leeram ya jolli na foo xool foofa baawaan rajo itfa daal dama ni jàppal ma bii rajo bul ko ti ba mukk rajo itfa rajo askan wi رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب والقلب صلي على محمد morning, you were very.